والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew gën may kàttan gën koo dëgëral gën ko fee yàggal te bàyyi ko kum xelam Euh, ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ bi ci yoon wi su boroom defal ko ko euh, ci noonu it euh, ndaje mi comme ni niñ ko xamee rek muy lu am solo ngir ne li ñuy wax yoon murit bi nga xam ne ci lañu nekk ñun mën nañoo wax ne xëy na bari na ci gëstukati yoon murit yoo xam ne sax dañuy jàpp ne ci weeru koor wi la sosu xëy na sax ci bis yu mujj yi du ñàkk xëy looloo tax sëñ bi. di dàkk bis booba ba tax mu woote wooteem bu am solo bi ngir ñu waxtaane lu aju ci yoonu murit waxtaan woowu nag euh, niñ ko tënk rek mooy euh, yoonu murit ak taxawaay bi mu def ci wàllu xam-xam science ak taxawaay yi mu def ci wàllu économie ak taxawaay yi mu def ci wàllu social ñetti ponk yooyu mooy yi nga xam ne ci la ñuy tënk waxtaan wi allah waxtaan wi ne ko ñu koy ànd ak ñetti mbokk yoo xam ne ay gëstukat lañ di ay ndaw ñëpp xam leen ci seen farlu ci xam-xam ak gëstu ci yoonu murit ki ci jiitu di sering galas bamba ak sëriñ fàllu mbàkke rafaayi ak sëriñ abdul khadir buso ñoom ñett ñooy seq plateau bi ngir waxtaane ñetti tomb yooyu nga xam ne moom la ñuy junj léegi bu dee Serigne Gallas Bamba moo ngi waxtaanal ci yoonu murit ak taxawaay yi mu def ci xam-xam incha allah danañu waxal Sëñ Tuubaa ci boppam naka la dunde xam-xam ak yan taxawaay la ci def moom sëriñ bu mag bi waaye ginnaawam tamit ñi ko fi wuutu yan taxawaay lañ ci def ba jamono ji ñuy wax kon moom ci loolu la ñuy waxal incha allahu taala euh, bu dee sëñ euh, Abdul Xaadir Bousso moo ñuy waxtaanal ci yoonu murit taxawaay yi mu def ci wàllu économie waaye dana ko laytaaye ci économie ci jamono yi fi sëñ bi nekk di sos yoon wi ci ban situation la ko fekkoon bu noppee wax taxawaay ci sëriñ Touba amoon ak ginnaawam yan taxawaay la ci murid yi am buñ noppee ñëw ci eh, sëriñ Fàllu rafaa yi moo ñuy waxal ci tomb mujj bi muy côté social sëriñ bi lan yan taxawaay la ci def waaye ginnaawam it yan taxawaay la ci murid yi def waaye foofu it ginnaaw dañuy wax ci wàllu société bi ak social ak yi nag yi ci aju dana baax foofu it mu laalal ñu ci loo xam ne borosal ñu ci lu am am solo loo xam ne mat naa waxtaane ci jamono ji muy lu aju ci réseaux sociaux yi ci ni ñu koy utiliser ni ñu koy jëfandikoo jamono ji warees na cee xam baax a baax ñun yi ban taxawaay lañ ci war a am ndax dañ koy war a jëfandikoo ci nu mu ñu soobee wala dafa war a am ay dawaabit fu ñu war a tënku nag e, di ko jariñoo foofa te ya nga xam ne ay lor lañu koy moytu ndax yaakaar naa kuy bàyyi xel fi actualité toll xam nga ne. amna ay danger yu bari bari yu nek yo xamne kep ne xam da ngay wuyone ne Serigne Touba nga war nga xam yow ban euh, taxaway wala naka nga war di euh, jumtu ka yu la yoy ngir mu doon lu lay jariñ jariñ yoonu serigne waye la cay ay lor ak yenen yo xamne ne amut solo nga man ko moytu en tant que kon ñetti ponk yoy dal moy yi nga xamne ne lañu wara waxtane war ngir bañ a guddal rek dañuy euh, jox Serigne Gallas Bamba moom mi nga xam ne moo ñuy waxal ci lu aju ci yoonu murit ak taxawaay bi mu def wala bi mu amal ci wàllu xam-xam dañ koy njëkk a jox nag ci wërngël bu njëkk bi rek mu wax xam-xam ni ko sëriñ bi doon dunde jaanib nazari bi mooy théorie bi waaye bu noppee wax ci naka la ko doon pratiquer ak yan taxawaay la ci amal euh, bu ko defee bu noppee ci loolu ñu jàll ci sëñ Abdou Khadir Bousso ci ab tombam 15 minutes moom tam jàll ci sëñ Fallou Rafa yi moom tam ci ab tombam buñ noppee ñu dellusiwaat ci beneen wërngalum ñaareel bi ngir doog a mën euh, waxtaan bi kon ngir bañ a guddal rek dañuy jox Galas Bamba mu tàmbali ci tomb bi nga xam ne moom lañ junj léegi ne ci la war a waxtaan bismillah sëñ bi asalaamaaleykum alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi diin jërëjëf ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi suñu waajur bi nga xam ne moom lañu fekk si fii muy sëriñ Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Souhaïbou ci jëf ju baax ji nga xam ne defati na ko di ñaan yàlla suñu boroom li nga xam ne murit bu yëngu rek ak lu mën di yëngu lenn rek moo ko ca bàyyi muy gërëmal sëriñ bi yàlla ko ci yàlla suñu boroom defal ndax kenn amul sikk sàkk ci ne ni mu xëree ci lu baax yëm na ñëpp. mas naa wax ni na ni Sëriñ Tuubaa meloon ci xër ci lu baax ba nettali nañ ne am na bis am koo xam ni daf ko jox xéewal kooku ne ko jasaakumullahu xayran yenn sëñ bi daw ñëwaat joxaat ko ne ko jasaakumullahu xayran sëñ bi suuf mu daw ñëwaat joxaat ko yaa ba mu ko defee ñetti yoon nag ca la koo xam ni jasaakumullahu xayran gi mu koy wax moo tax muy daw ko ñëw mu noppi yaa ngi la fa la bi yam xel googu mu xeloon ci lu ci lu baax nag moom lañ gis ci suñu waajur wii nii waaye loolu du kiimaan ndax li arab naan sin senatoon xarifuha min axsani loolu jikko la yoo xam ni ak melokaan yoo xam ni ca maam ya ca fi mu ko boo xamee rek kon loolu du la du la yéem kon ñu ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko tawfeex bu baax a baax kon suñu amidu ci ñu bañ a guddal rek ci thème boobu nga xam ne wax nga ko ci ñu fas yéene ko waxtaanee te mooy Serigne Touba ak xam-xam Serigne Touba nag moom yoonam wii nii manees naa wax lépp xam-xam la am jëmmi yoon ci boppam day bañ jëf ju tegu ci xam-xam da koy bañ yoon wi nga xam ne ci la woote te mooy yoonu murit jëf ju teguwul ci xam-xam nanguwu ko yoon bi nanguwu ko ci njëlbeen ci njëlbeenam rek bi mu sosee yoon wi ba dikk Mbàkke waxaale ko niiraan ca la waxee ne fa kullu xaamil bilaa ilmin yura fa sahluhu mislu xabaa'il musra nee na tegu ci xam-xam moom mooy mel ni pënd bu ñu disaale danaan wax yi ne na ngeen jiital ak xam ci lépp lu ngeen def waxuma la mbirum diine waaye mbiru àdduna mbiru àdduna rek lépp lu ngeen ci def na ngeen jiital xam-xam wax di mel ni xilma ala kulli xamal kon moom nag marees naa wax ni moom ci jëmmam li njëkke rek ni ni mu dundee xam-xam ak euh, fi mu bokk ndax ku ne xam na ni fi nga xamee ni fene bokk mooy ku wax waajuram bu góor tudd Mamour Anta Sali waajuram bu jigéen soxna Jaara Buso ba ci ay maamam soxna Asta Walo ñëpp ay jàngalekat lañ lañ dañoo yoroon daara dama laa jëlee góor ñi waaye même jigéen ñi sax ay jàngalekat lañ woon soxna Asobal ku ne xamoon na ni daara yoroon di jàngale téere yu mag yi nga xam yépp ba ci fiqu Maalik muy téere yu mag yëpp si rajo Saalika mu taw sooy xale rek yëpp dafa daan jàngale ci biir këram moom soxna Asobal suñ Mor ànd sa li moom dañ koo jëlale ndax ci jamonoom biir këram moo nekkoon ëttu xam-xam bi gën a mag daanaka ñëpp ci lañ daan ci lañ doon sàkkoo xam-xam kon sëriñ bi bu bokkee foofu noonu. xëyee suba ci niñ koy waxee dañ dikk ci biir waxtaan bi bi fi maam ànd sa lu jigéen ñu koy woo ci leneen loo xam ne bokkut ak xam-xam ak ca la ay maam nekkoon mu tontu leen tontam lu rëy loolu ñu leen warastu raadiya xayral ilmi wa diin kon bu waxee loolu kenn du laaj lu tax ndax dafa juddoo ci environnement boo xam ne xam-xam ko si la kon loolu dëgg la mën a la mën a xam jeexit yi xam-xam nag ak. wàccuwaay wu am ci moom ak solo sum ko jox dañ koo teel a gis ci moom ci jamono ji nekkee ndaw ndax ñii bind ci moom ñëpp ba ci Cheikh moom bi lam ñoo ak ñeneen ngeen bind nañ ci ne jamono ji mu nekkee ci biir daara ji di jàng ci Mamour Anta Sali lañ tàmbalee xam ci moom farlu ci bëgg xam-xam ak ak farlu ci jàng ndax ku ne xam na ni jëmmi sëñ Mor Anta Sali moo nekkoon daara ji yoroloon na di jàngale waaye sëriñ bi farloon ci xam-xam ak leerub làmmiñam ak bëgg xam-xam daanaka taxoon na maanaam ñi bokkaloon daara ji ñëpp ci moom la naan la naan dellu mu leen di jàngal di leen tëralal te loolu lépp li ko waraloon mooy bëgg xam-xamam sëñ Mouhamed leen Diop Dagana sax nettal na ci an-Nubsatul Mubaaraka nee na ba ci naari gànnaar yi nga xam dañ daan seeti sëñ Mor Anta Sali ci biir kër gi. nee na ñoom ñëpp sëriñ bi dinañ defal xarit waaye nee na leen doo nga taxoon mu defal xarit mooy bëgg gum bëgg xam-xam ak jàpp ni fépp foo xam ne xam-xam nekk na fa rek moom da ko war a jëli daa war a na sax farloom farloom te bëgg xam-xam ak yu moo taxoon suñ eh, li suñ dagara nettali ci àdduna sotti mu bari nee na am na benn bis boo xam ne ab téere la bëggoon téere boobu am naar moom moo ko yoroon mooy téere bi Bidaayatul Hidaaya bu Imaam Xasali nee na waaye dafa waxam ak bi xamal ko ni dafa bëgg téere bi naar bi ne ko koy da koy jaay sëñ bi nee na bu waxee ba jubóog moom nee na ma ko wax mën nga koo téye danaa dem wuti ji lu ma ko jëndee waaye nee na booba dafa xool xool xool amut dara lu mu mën a jëndee téere bi nee na am na benn commerçant boo xam ne taalibe euh, sëñ moo ànd sa lool sëñ bi nag dem ci moom seeti ko noonu rek nee na nag bi mu ko gisee ak yëre yi mu sol ak yu mel noonu mu koy muy wax ak moom ak yow waroo sol ak mel noonu kooku jël ab yére jox ko ko jox ko sëñ bi nee na bi mu jëlee yére bi jox ko mu sol waaye yére ba mu soloon nag suñu ko dafa am fu mu ko bi mu demee denc yére boobu noonu ba kooku bàyyi leen bay dem mu jël yére ba mu soloon solaat ko jël bu bees bi ko kooku jox téye ko. nee na dem ba ca naar ba mu xam moo yor téere ba mu ne ko ndax bëgg nga mbubb mii ngir nga joxul téere bi naar bi déggoo tey moom mu jox ko yére ba sëriñ bi jox ko mu jox ko yére ba naar bi jox ko téere ba gis nga téere boobu noonu moom la way tudde ko mu lay nu su dóor bi mu diggee ci géej gi ba nekk gànnaar ci la ko yeesalaat tudde ko mu nawe nu su dóor kon loolu dangay xam ne farlu ci xam-xam maanaam ak bëgg xam-xam weesuwul loolu gis nga it xam-xam daanaka mooy moo taxoon ñu ñu ko ndax suñ mën an seli bëggoon na ko lool fonk ko lool ndax suñ dagana net nettali na ko nee lu bëree bëri daw jaxasoo nit ñi moom ci àll nekk daw jaxasoo nit ñi ci lépp nee na demoon na sax ba nit ñi jàpp ni moom xel mi dafa manqué ndax bëri beru gu beru ak yu mel waaye nee bi mu demee ba tàmbalee jàng ak yu mel noonu nag farlu gi mu farlu ci njàng ni ak xam li muy jàng ak nit ñi dëgmal duñ ko dëgmal nee na ci lañ ñëpp xamee ni kon ndakate kii maanaam bëgg lu ko jàpp waaye nag ko kon ci xam-xam sax ci la nit ñi gën koo xamee gën koo ràññee ba xam ne kii kat dara dara dara jur ko ci noonu la la wéyee di dox ba ci bisu Maam Mor Anta Sali jugee nga xam ni jamono boobu noonu am na maes naa am na ñett ñu fi nekkoon maanaam boobu tubaab yi ñu ngi fi buur yi ñu ngi fi sëriñ si ñu ngi fi ñett ñooñu daanaka ñoo warul sëriñ bi ñett ñooñu nag kenn ku ne am na lu mu waxoon am am na lu mu waxoon ak ñoom wax naa léegi ci ne ñi ko doon jàppee xelam manqué ak yu mel noonu ñooñu la toppoon xaaral sa teewul waaye gis nga bi fi suñu mën ànd sa li jugee nga xam ne bañ koy woo ci loolu lu siiw siiw la eh, di ko woo ngir mu dem ci rajo rajo taxaw fa taxawaa yëpp maanaam yor ko yoral ko lenn lu jëm ci wàllum xam-xam ak yu mel noonu bi ñu waxee ba noppi dafa bañ lan leen tontu mooy li si ndaga na wax ne da leen ne. amma jëmmi li ngeen wax ci ne ñu dem fa ma dem fa ngir lu jëm ci wàllu masla ak lim sëkkal ak suñu moor ak yu noonu borom dana nekk ci waaye amma jëmmi jëmmi dem ci moom nag ngir di fa wut dara wala di fa dara rus naa malaayika yi di gis may dox ci jëm ci beneen buur bu yàlla waaye gis nga xasida gëm kan, leen tontu muy xaalul yerkat ca leen leen waxee naan warastu radiya xayral xilmi wa diini nga xam ne te leen àndu ne man lu xam-xam ak diine rek daanaka amul ci moom amul ci moom solo waaye gis nga tubaab bi tuuma tuuma ji ñu tegoon ci moom ni mu woon tuumaal ko ni day jihaad day bëgg a jël ñaan naay di xeex ak ñoom ak ñu mel noonu waaye gis nga lan leen tontu ba léegi ci xam-xam la jëm lu waxee ne wa maa qaalikum inni ujaahidu saadiqun inni li wajhi llaahi ujaahidu inni ujahidu bil ulumi wa tuqa abdan khadiman wal muhaymin sahib gis ngeen lam leen waxe moy mom jihad ji muy def jihad ji ngeen bu tuuma deug la waaye nag moom jihaadam lepp da ko jëmale ci xam-xam ak ragal yalla kon lolu ci nga xamee ni bi manam yoon wi ñi tënk murid yi ci xam-xam moom ci jëmmam noonu la fonkee woon xam waaye loolu la tënkee boppam ci xam-xam li ñu nekk def mooy li ma wax léegi mooy farlu gi ñu ci farlu ba nekk ba nekk ci kàngam waaye it gis nga it ci jamono yooyu buñ ci delloo tuuti ñépp xam na ne bi mu woote yoon bi mu woote yoonam wii li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk wax mooy jàng mooy jàng ndax. ci baatu ba rabbi la ko njëkk a wax mooy rabbi asxaabaka bil himmati te xam nga ni loolu moom la suñu borom digaloon yonent bi sallallahu ndax boo demee la taxoon ko mooy ñaar wala si fi fii lu mu yéene rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yusakkihim te teg wa yuallimuhumul kitaab ko wax ne ko nit ñi dañuy temps bi ci dina ma ci ak yar fana fana jaar ñoom jaarut ak ñoom ci yeneen faneen fudul foofu noonu faneen fudul foofu jaar noonu it maanaam yëmutoon ci tënk leen ci wala moom la mu nekk waaye danaa ne ñaan yàlla suñu borom suñu borom def ko doon li war a xam loo xam ne maanaam kenn mosu ko jël ndax fekkoon na xam-xam fekkoon na xam xam-xam moom ci la jàng moom ma moo waaye li li li manqué woon ci fekkoon na ci it maanaam muy jëfe muy jëfe waaye ndax ñu daan def bu baax Daaru Salaam dikk Mbàkke dikk dikk Tuubaa gi nii dañu di jàngal

waaye li mu bëggoon tamit mooy wéyate ak li nga xam ne moom moom la yar ba mën leen a ba mën a def ñoom li ñu bëgg moo xam xam-xam la xeetu laqaytu wasiirahu allasi jamaxa jaysahu ilaa tilka daari al mamniyatu li taxallumi wa taxlim li taxallumi wa taxlim nee na biñ koy jël si Mbàkke Kajoor eh, eh, nga xam ne diggante ma tubaab bi la fi doxal mooy dogal bi yàlla rek la ko tuddee loolu du mawdoo bi waaye nee na daal kër gi bàyyi ko muy Mbàkke Bari Géey nee na ba mu fay dem lenn dong ñaari ñaari gi dong moo taxoon mu sanc ko muy jàng ak jàngale kon da ngay xam ne doxam bi yépp maanaam bi mu jugee Mbàkke Mbàkke Kajoor ba sosu woon bi dox bi mu dox lépp ak dëkk yi mu dem yépp lenn dong ko fi yóbboon muy fexe ba loolu mu bëggoon ci nit ñi mu am ko mooy jàng ak jàngale Tuubaa gi bi mu koy sanc daa ñaan yàlla suñu borom mu def ko ko muy dëkkub xam-xam wajjaxal binaa iya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa ilmi gis nga it bi muy man na maa misaale foofu da daaneel maanaam bi muy woo bi muy woote yoon wi bi muy bi muy buñ la laajoon tey sëriñ bi lan la woote ak bi mu wootee fan la jëme nit ñi ak ban yoon lay jaar pour àggal leen fa mu jëm da koo tënk ci benn bayit day mel ni dañ koo laaj ne ko nit ñi nga woo foo leen jëme muy leen li ma bëgg ci ñoom mooy ak texe ñu ne ko fooy jaar ba am texe googu mu ne ci jàng ak jàngale yaqulu ahmadu ila saxaada ñu ne ko fooy jaar ba sahaada googu mën a am mun a yedduxul ma laa bil ilmi wala xibaada kon dangay xam ni texe ji pour ñu mën ko am mënta ñàkk ñu jaar ci jàng ak jàngale ki danaa wax ne jox na ci maxaaliku niiraan ne xam-xam ak jëfe xam-xam mooy wasiila yi nga xam ne mooy àggali nit ñi mooy àggali nit ki ci ci ak texe dalal waxee ni it ne na ngeen xam ni xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin mooy yoonu faju ajo maanaam yoon yi lu ngeen mën a dugg ak lu ngeen mën a nekk jàpp ne seen aajo dina faju nee na ñett yi rek ci ngeen ko mën a amee mooy xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin wa amurukum bil xamali bil maaloomi mahal aada bi mu ne fa inna haasihi salaasati wasi wasaa'il al arabi mu ne ñett yi mooy ñett yi nga xam ne mooy yoon yi nga xam ne moo leen may ak fajug ajo dañu daan waxoon na it am nénkaan boo xam ne ma daaneel foofu nénkaan boo xam ne nénkaan bu gàtt la te am solo balaa ñuy dikkaat ci lim ci diggalee murid yeeg lim ci wax ak yu mel noonu dafa waxoon ne waxalimu am na akum wa aswaajakum wa kullu man taxallaqa bi asyaalikum maa awjabahu llahu alayhim wa illaa fa sawfa tusaluuna yowmal xiyaamati mu ne maa ngi leen digal seeni njaboot seeni soxna ak képp ku aju ci yéen moo xam ab taalibi la wala ku leen jox ak ku maa doon na ngeen leen xamal li yàlla waral ci ñoom mu seeni farataag yu mel noonu mu ne bu ngeen ko defut suñu borom dana leen ko laaj yowmal xiyaam xam ngeen ni siiw na ci leen sëriñ bi daan na wax naan man xu anfusakum sonaluma waaye wa ahlikum naaran moo ma sonal kon loolu buñ bañee loolu sonal kon ñëpp nañu ji ma fexe tënku ci xam-xam fexe ba suñu jëf ñu koy tënk ci xam fexe ba suñu melokaan di di di di xam-xam ñu nekk ay nit xam-xam bu ñu nekk ay nitu xam-xam rek yaakaar naa jafe-jafe dootul am salaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa rahmatullah euh, jërëjëf sëriñ bi euh, wax ji am na solo lool te tënku na euh, muy lu aju rek ci sëriñ bi ak ni mu doon dunde xam-xam wax na ci am solo njëkk naa tàmbali sax ci wane ne sëriñ bi ak dundam xam-xam sax sunu boroom mi dogal da ko ko laytaayale jox ko ñaari waajur yoo xam ne ci loolu lañ nekkoon muy la am am solo loo xam ne bokk na ci liy tax nit ki mu mën a dund la ay waajuram euh, doon dund ndax bu fekkee dangaa fekk say waajur ñuy niti xam-xam ngir nga bëgg xam-xam di ko gëstu ak di ca sonn day yomb lool waaye bi loolu amee it ba mu tollee ci jàng ci zaahir jàng na li mu war a jàng lépp xam liñ boroom xam-xam yépp xam waaye yemu ci taalif na lu baree bari waaye yemu ci it di jàngaleel boppam ba mu demee ba jotam mayetu ko muy jàngale it wut nañu ko koy defal loolu nag day wan ne rek kon moom yoonam bi ak mission bi xam-xam munu cee munu cee génn indi na fi ay bayit yu bare bari yoo xam ne day gën a dëgëral li doon wax rawatina bayit mujj njëkk a wax yaquudu ahmadu ila saada yadul mala bil ilmi wal ibada bayit woo ma am solo la yóbbu nit ñi fan jëme leen ci saada saada gi it tënku ko ci saadatu dunia faqat wala saadatul axira kon mën nañ cee dégg ñaari saada yépp waaye ñépp la woo génnewu ci kenn bil ilmi wala ibaada xam ak jëfe ko kon loolu moom mënee su ko génnee ci yoonu murit muy xam-xam ak jëfe xam-xam ñu ngi sant bu baax a baax ci wax ji am na solo lool te na xam naa danañ dellu siwaat ci yow incha allah ci kanam tuuti ñu jàll rek ci Cheikh Abdou Khadir Bousso moom mi nga xam moo ñuy waxal ci wàllu économie ci yoonu murit maanaam yoonu murit taxawaay bi mu am ci euh, wàllu économie incha allah dana wax sëriñ bi bi mu ñëwee xëy na wàllu économie fan la ko fekkoon ak it lan la ci def ci loolu la ñuy waxal ci eh, wërngël bu njëkk bi bu dellusiwaatee doog ñoo wax ginnaaw sëñ bi yan taxawaay la ci murid am kon ngir bañ a guddal rek dañuy daal di koy jox kàddu gi mu nuyoo ta daal di tàmbali ci ñaari point yi nga xam ne moom la njëkk junju léegi bisimilah Cheikh Abdou Khadir. rahim alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو مولوم ييب دلن زيار دلن نوكر كي فان يو مجيي تي كورغي واي دي جيتال تي بيك زيار بيك نوكلي سماحة الشيخ Mouhamed al Muntaqa al xalifatul am li tariqati muridiya waaye nag yooyu lépp ñu koy teg ci loxoy rakkam ju baax ji du suñu kilifa di suñu waajur di suñu nijaay Cheikh Abdou Samad di ñaan suñu borom dëgëral leen ba li ñu yéene am ko ci ay taxawaay ci seen yoonu maam wi yàlla dëgëral leen ci bu baax a baax a baax ñu am ci ay ndaw ndam ñu kawe kawe kawe comme ni ko mbokk yëpp waxee rek. Sering Abdou Samad ñëpp xam nañ ko ci bëgg lu baax ak man ko gàttandu ak it man ci yaatal yene ko ñëpp it loolu yalla bu ci yaakaar tas ci bakkeb serigne bi euh, serigne hamid ni nga ko waxe ni ko serigne fallu waxe legi yoonu murit dafa bari ay taxaway serigne fallu junj na legi yenn ci ay taxaway yo xamne yoon wi am na ko ci dunduk serigne bi mu jëm ci walu xam-xam ak it ni ko sëriñ bi nek ni mu ko feeñale waaye noonu la amee ci wàllu koom-koom kenn ku ne xam ne ne sëriñ bi bi muy ñëw jamono dafay fekkoon benn situation bu critique noonu lañ ko mën a tudde fekkoon na fi ak réer tusaaroo lool bi daa bari lool nit ñi seen niveau wàcc lool ci wàllu xam-xam yàqute gi lawoon ba daj dab daj ñi nga xam ne sax ñoo doon wax ci turu diine wala daan diriger nit ñi ci turu diine waye yaqta gi agon ci walu jukki ci walu gem yalla walu pass pass ak ci walu yeb agon ci sax ba ci nit nit ki xalaté wala nim mu bëgg ab société mu jondar réew mi kenn xamuton nu mel kenn mënu ko misali ci ak yàqu ndax réer gu ak aku euh, mbonté agon nañ ci ñi nga xamné ne lañ lan ñoom lañ daan bayyi xel ci diiné buñ daan def dañuy ngissal ak dina fiq def jëfi jëfi naafiq agon nañ ci képp koo xam ne day def day def ngir bëgg a siiw wala ngir intérêt aduna kase loolu sax taxoon na ba léeg-léeg daanañ gis ci ay barab yoo xam ne dañ fa def rek ta yàlla tax di fa waxee rek ta yàlla tax mujj nit ñi di ko xëccoo ngir àdduna daanañ xeex ak xëccoo ak di ŋaayoo ci kan moo war a ci jumaa ji ak kan moo war a nodd daanañ xeex ak di xëccoo ak di ŋaañoo ci kan mo wara jité quartier bi wala kan mo wara nek atté kat bi lolu nak xëccio gi dara warlu ko lu may aduna ak it bëgg a wan ne kii moo force morom lolu lawon ba ta li may wax mi ngi amon ci al-qarnul rabi al al alxarnu rabi achar al hijri 14e eh, siècle ci gadda gi moy rek ci jamono yi fi señ bi ñëwé muy yàqute goo xam ne nekkutoon ci senegal rek waaye dafa lawoon sax ba ci àdduna bi yépp booba xam-xam yombutoon comme ni ko sëriñ Serigne lu muy junje ndax tubaab yi ñoo tegoon loxo ci dëkk yu baree baree bare te ku bëggoon a jàngale wala nga jug ci xam-xam dañuy weñ sa loxo ba nga xam ne du yomb loolu indi woon na ay jafe-jafe yu baree bari bokk na ci jafe-jafe yi mu indi woon mooy dafa fax dafa taxoon nit ñi gannaawal xam-xam seen yitte suufe gëstuutuñ xalaatatuñ waaye it seen xol xam-xam euh, bàyyiwuñ ci woon xam-xam xel képp koo xam ne it yàlla dalaa jox xam-xam danga koy jëfandikoo ngir rëbbe ko àdduna loolu moo taxoon ñu daan dem di sibooru buur yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yii yëpp nag dafa am lu indi ci wàllu économie ak ci wàllu dund social gi bokk na ca lam ci indi mooy ni ñu ko Serigne Moussa Ka di misaale rek ci Jazaawu Shakoor nee boroom xam-xam yi lislaam yi ci jamono jii àggoon nañ ci euh, jéggiwoon nañ dayo ci niñ daan parparloo ak niñ féete woon ak buur yi te buur yi muy wax mooy ay yéefar lañu woon doonoon ak ñoo xam ne gëmuñu dara àggoon nañ ci di leen sibooru ngir bëgg ak cër wala alal wala yu mel noonu ñenn ci ñoom sax àggoon nañ ci di tux ñenn ñi di njaalo ñenn ñi bu ñu jàng alxuraan di ko wayantu di ci fecc am sax ñoo xam ne demoon nañ ba jël diine ji di ko njabare ak di ko defee yu mel noonu am ñoo xam ne dañoo demoon di jaay ubbi ay restaurant ak yeneen ak yeneen ak yeneen euh, ñi nga xam ne dañoo yoroon ay daara sax dawuñ ci bàyyi xel nan la daara war a tëralinu daara nan la war a demee ci teqale góor ak jigéen waaye dañ daan bàyyi lépp rek su mbaxloo bi euh, deme na na na na na na waajamanu bëggee boroom xam-xam yi mujj leen neex ñu def nga xam ne booba mën nañ ne Sénégal yépp daanaka ñaari loxo ñoo leen doon awantoor loxo yi bóor yi bóor yi mooy bóor yi àdduna yi fi nekkoon nga xam ne dañ daan xool ñoom góor ñi ku leen ca neex ñu jël la def la ab soldaar wala ñu jël la eh, nommé la ci nga leen di sàccal di leen indil képp koo xam ne jigéen nga boo bu ko bu la ko sabtaar mayee ñu denc la soxna bu la ko mayut ñu def la ab jibér di la jëfandikoo banen loxo bi lay awantuwaat mooy colonialiste yi nga xam ne ñoom dañ la daan tàggat ngir seen intérêt aduna wala seen intérêt euh, économique kon loolu indi ay jeexit yu bare bare jeexit ji bi ci jiitu mooy ci wàllu économie daanaka képp koo xam ne da ngay jege buur wala nga koy siboro la tax nga koy siboro mooy ngir bëgg alal rek ak daraja waaye loolu indi woon na it ba tax nit ñi ñu bare bare bare moo xam muy borom xam-xam wala du borom xam-xam dañ daan sóobu ci yoon yi gën a bon ngir fàggu alal ju araam moo xam dañ koy jaare ci njabar wala ci seet wala ci jëfandikoo ay pexe yoo xam ne du dëgg waaye it tàyyeel ak yàccaaral tusaara woon lool ci amatu naas yi muy mbooloo mi rek suufik jukko it ak ñàkk solo tusaara woon lool ci ñoom loolu lépp nag dafay indi économie bu daanu waaye niñ daan utiliser alal yi dañuy wax consommation wala dépenser moom it nañ ko daan defee la yàlla xam doy na daanaka daawuñ ko teg ci xam-xam daawuñ ko teg ci xel loolu nag demoon ba situation yi ñàng lool système économique bi kenn xamatul nu mel système social bi kenn xamatul nu mel ndax lan ndax nit ñi bu leen buur yi utiliser bañ sonn bu ñu wëlbatikoo fekk colonialiste yi ñoom it utiliser leen kenn ku ci ne bu lay utiliser daf lay utiliser ci kaw intérêt ak njariñam kese sëriñ bi nag bi ñëwee lim njëkk def ngir saafara loolu mooy dafa teg. système éducatif mashru' tarbawi bo xamné daf koy tek ci aw yoon wo xamné da fay yéssal euh jamono bi ñuy dund ak contexte bi ñuy dund mashru' bobu muy wax nako mom ci jëmmam wax nako ci sawdu shubaan wax wax na lim fi fekk xam naan fi anna sunnata nabiyyin amin alayhi afdalus salati kulla xiin kaadat turak rasmi darin qat'afa sunnum amatu fi mi ngi mel ne kër gu ñu dëkkee nga ñëw fekk fa rek ay jeexit sëriñ si toppoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam lañ jàngale woon it kenn gisatu ko fenn noonu la ko waxaat ca maxaaliq hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati jahli ala nnaasi ixtafa sëriñ bi kon jàngal na jamono xam na jamono ñëw na nag ngir defar balaa defar nag nit nag bala ngaa faj day fekk nga xam jàngoro kon xam na jàngoro ji tasxiis na ko seet na ko ba xam ne lii la li ko mën a faj nag ginnaaw ak réer la li ko mën a faj mooy xam-xam fexe ba indi xam-xam te loolu si suñu fàllu wax na ci ginnaaw jukko ju yàqu la ak tàyyeel ak yàccaaral la ko mën a faj mooy fexe ba tërbiyee nit ñi tàmmal leen liggéey e, galeen ci bañ man ko loolu moo tax sëñ bi indi benn système éducatif boo xam ne dafa am ay objectif am am ay moyen fu ñu ko mën a jaarale waaye am it ñoo xam ne ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxaw loolu la la koy tënk rek mooy xam-xam bu am njariñ ak jëf ju baax waaye tamit al al mardi waxoon na ne fal ilmu xayru ma bi al fata li annahu yukrimu xaytu ata xam-xam mooy ngeen ji li nga xam ne nit ki moom lay taaroo ndax mooy li nga xam ne moo koy teral saa no saa yu noree suufe wal amalu saalixu xayru zaadi wal ilmu duunahu gururun daadi jëf ju baax nag mooy ngeen ji yóbbal bi nga xam ne saa yooyu dem dafa war a ànd ak yow xam-xam bi lu mu bari bari bu ànd ak jëf na nga xam ne ak naxee la rek wal adabul mardiyu afdalu jamaan fa daaka duunahu tamaathalat dalal waxoon ne nag euh, teggi ñi gërëm mooy li nga xam ne toujours moom ngay sañsee sabtaar mat saa loo mën a am bu ëntu ci teggin daanaka mën nañu jàpp ni amoo solo euh, xam-xam kon li ci Sëñ Fallu wax duma ci jaaraat kon loolu la njëkk def mooy teg système éducatif ñaareel bi mooy Euh, jihaat bakkan bi nga xam ne nag dafay yàccaaraloon fexe ba tàmmal ko jaamu yàlla ak fàggulu lew ak xidma kon foofu la rôle social bi feeñ ak économique bi euh, sëriñ bi euh, yoon wi mu woote dafay woote ci jihaat ci xam-xam ak ragal yàlla ak bàyyi violence indi it nu ñuy def bay mën a communiquer ci suñu biir ak di jokkoo jokkoo goo xam ne dana jural ñëpp njariñ loolu leere na ca Euh, xare bi jaaroon ci Lat Joor ak tubaab yi ci atum 1889 euh, 26 octobre xam nañ ne ñu jóge woon ci xare ba te àndoon ak Lat Joor ñi ci jébloon ci sëñ bi bagages yi ñu indaale woon te mu jógee ci xare bi sëñ bi da koo jël soppi ko ay bagages yoo xam ne ay outils yoo xam ne dañ ko dañ ci mën a produire yenn yi mu jël ko def ko ay alliwo ñu ci mën a jàng alxuraan yi des mu def ko ay jumtukaayu bay loolu lépp dafay wane ni kon li mën a suqi am réew ab dëkk am mbooloo mooy ñu jublu ci xam-xam ak liggéey kon yoon woowu la yooyu yoon woowu la wane ñim daan tërbiyee it moom Mamadou Bachir nettali nañu ko ci minan ci ab texte bu yaatu la koy tënk rek mooy ñaari parti la ñu woon ñi nga xam ne dañu daan ñëw di ko ziyaare si rek daal di delluwaat ñooñu daf leen daan gindi laabire leen jox leen ay awraat ak yu mel noonu bu dee ñi nga xam ne dañoo ñëwoon dëkk ci kër gi bàyyee ko seen bopp ñooñu la daan tërbiyee dëgg-dëgg tërbiyee googu na mu daan demee mooy fexe ba dindi ci seen bopp bëgg alal ak àdduna sax ci di jëf lu baax ak di sellal sa yéene lépp looy defit mu dëppook sariyaan sëriñ Cheikh Ahmadou Bachir teg ca bi doon def lii moo gën a xam nitam moo gën a xam jamonoom xamoon ne ne mbooloo mii muy def lii dañoo réer ak réer daf leen a dab waaye tamit jukko ju bon dafa tusaaroo ci ñoom neena motax bu len musan jàngal bañ xam sen diine xam nañ ci wara taxawé lam leen da njëkk a def loo mooy fexe nag bañuy jonjoog liggéeyu yaram lolu moy dindi tayal gi nek ci ñoom ta xam nañ ne fi aksari sukani iqlimihi la wax li ëppoon ci gox bi señ bi nekkoon ñi tayal dafa tusara woon ci seen biir Cheikh Amadou Bassir tek ci ne tayal nak lo gis mu yàqu ci diine wala ci aduna tayal moko moko soqi ak reey dafa tusara woon ci ñoom ak nawsa jëf ak xeetu jikko yu bon yoy yëpp mu tek ci ne buñ mosaan dem nak ba ñoom ñëpp ñu tam liggéey ku fi ñëw xam ne barabu barabu kay la ku fi génnee xam lolu tay sëñ bi daw ci ràññeele kenn ñëpp daan liggéey képp koo xam ne daf la daan jox daraaje yit wala mu la jox da fay fekk nga am ay man-man yo xam dang ko dang ko mané ki nga séqal wala ki nga langal né lolu andi won na ba tax képp ku musaan jóge ci sëñ bi dellu ci say mbokk boo demee ñu xam ne na nga fi jóge woon ak na nga fi delloosee bokkut nee na loolu moo indi woon sax ba ñu bare bare délégation yi ba ci sax niti diine yi niti àdduna yépp dëgg man sëñ bi ñëw ngir tànku ci tërbiya googu mu daan def tërbiya boobu amoon ay melokaan yu bare bare bari waaye euh, sëñ bi euh, moo xam mag ñi moo xam ñi nga xam ne dañoo jàngoon ba sori moo xam ñi nga xam ne dañoo jàngoon kase rek yam ci te tërbiye wu ñoom ñëpp daf leen daan tërbiye ci ay textes yu bëree bëri yoo xam ne Cheikh Mamadou Lamine Diop Cheikh Mamadou Lamine Diop dagg na wax na ci waaye Cheikh Mamadou Bachir wax na ci ci Minanul Baaxil Xadim loolu indi na ay jeexit indi na ay jeexiti xam-xam du ko du ma ci wax waaye indi na ay jeexit ci wàllu social ci wàllu diine waaye indi na it ay jeexit ci wàllu économie foofu rek ci lay tënkee jeexit bu njëkk mooy. markaziyatu mabda i tasdir wal idn fi insha il qura wal ribatat bokk na ci jeexit yi tërbiyab sëñ bi indi mooy gën a bàyyiloo xel nit ñi ne dangeen a war a tusaaroo ci àdduna bi ngir dundal ko ngir dundal suuf ndax xam nañ ne ku musaan ànd ak moom ba mu yëg ci yow ne àgg nga fa fa nga war a àgg daf lay seexal bu la seexalee boole la ak am mbooloo ngeen ànd dem dundali suuf bu ngeen demee la ngeen fay représenté mooy yoonu murit ak i principe am di defaree loolu euh, euh, sëñ bi noonu la ko daan defee waaye ku mosaan seexal ba yóbbu la ci dëkk yit nga ànd ak sam mbooloo teewul loxoom daw jug ci yow loolu ku ku kuy jàngat leetar yi jaar ci digganteem ak mag ñu baax ñi ak laabire yi jaar ci seen diggante ak fataawaay ubbee yi ñu ko daan laaj mu leen di tontu ak léeg-léeg mu jékki-jékki bind la bataaxal ne la defal lii bul defee nii da nga xam ne sëriñ dëgg-dëgg koo xam ne loxoom mosut jug ci ak njabootam mooy sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu foofu dundal gi ñu daan dundal suuf. dekkal nañ ci euh, la yonent bi sallallahu alayhi daan soññee naan ku dundal suuf nangam ak nangam ak nangam suñu borom dafa bëgg daf ñu andi ci suuf si ngir ñu dundal ko yoonu murid nag bokk nañ ci ñi gën a dundal suuf cheikh euh, docteur Xaarim si la mosoon naa def benn jàngat boo xam ne dajale woon nañ ci suuf si murid yi dundal ba mu ëppoon 400 nangam ay dëkk yoo xam ne ñoo ko sanc léegi nag ëpp na ko ci lu baree baree baree bare sëñ bi njëkk cee wane yoon ndax gis nañ ne sanc Daaru Salaam ci teg ci Tuubaa gi bi ñu sañc fi ay kër yu baree bari bokk na ca daarul xudóos fa mu tudde woon daarul xudóos daarul rahman daarul minan daarul mannaan daarul alimul xabir ba mu demee mbàkke baari dundal na fa suuf ba mu demee ceen jolof amoon na fa kër gu ñuy wax daarul rahman daarul xudóos ba ni ñëwee njaareem ak kër gu mag na mu ko def kër gu ci na it mu am nu muy bindoo ci ci ci niñ koy tabaxee niñ koy plan yi gis nañ ne yoonu murit am nañ seen plan wu seen plan wu ak seen tëraliinu kër goo xam ne daanaka kenn fekku lañ ci waaye sanc googu nga sanc ay dëkk bokk na ci li indi ci wàllu économie mooy indi na ay man-man yu wuute yu bari fi ne boo ki nga ki nga ki nga ki nga digal mu sanc ab dëkk mooy bu demee mën na faa jànge mën na faa tërbiya bu demee mën na faa def ay mbécce yu wute wuute da gis ñoo xam ne dañuy féete ci wàllu mbay mi ñii féete ci wàllu càmm gi ñuy féete ci wàllu yarum jur gi ñee di dem di taxani ñee di dem di rooti ñee di dem di euh, jëmbat ay garab ak yu mel noonu kon loolu dafay jur ay man-man yu wuute dangay gis ñoo xam ne ci wàllum tabax lañ jëm ñoo xam ne ci wàllum defar ay usine ak euh, daanaka ba ñu dee wax duus métiers lu ci baree bari ci murid bi nga ko gisee waaye lu ci baree bari ci ñu ñu jóge ci daaree tarbiya yi ci lay ci lay feeñe waaye it barab la boo xam ne dañu fi mën a joxalante ay xalaat ak wàllu culture ndax ñu baree bari ñoo fi tase ñoo xam ne ñii kii nga jógee Kajoor kii nga jógee njàmbur kee nga jógee faneen ak faneen ak faneen ay taalibe yoo xam dañoo jóge ci ay famille yu wuute ci ay barab yu wuute bu ñëwee ci benn barab foofu talaaxu fikri yi dafay am maanaam xalaat yi dañ koy mën a jokkalante wàllu culture yi dañ koy mën a jokkalante euh, bokk na ci njariñ yim indi it mooy tanawu dafay am ci nit ñi ak xeetoo dafay am ci nit ñi séddalikoo ci mbécce yi ndax gis nañ ci këram gi mu amoon ci njaareem ak yeneen kër yi mag ñu baax ñëpp ñoo xam ne bind rek lañ daan féetewoo ñoo xam ne jàng rek lañ daan féetewoo nga gis koo xam ne man-manam ci wàllu mbay rek la jëmoon gis koo xam ne man-manam ci wàllu ministre la jëmoon gis koo xam ne man-manam ci wàllu euh, yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen la jëmoon waaye bokk na ci lim indi it mooy tawseex sukkaan yi maanaam dëkkuwaay yëmatut fenn fépp la tusaaroo daanaka booy xool murid gi booy xool xarita bi carte bi nga xam ne fi la murid yi seetli ko da nga gis ne ñoo war réew mi ñoo nekk ci digg réew mi ñoo nekk ci pegg yi ñoo nekk fépp loolu nag li ko indi mooy sanc gi ñu daan sanc ay dëkk ak it wàllum tarbiya boobu ak li sëñ bi def ci wàllu économie waaye fi may mujjee maa ngi eh, jël yu bari ndax waxtu wi mooy andil na murit gi ci sëñ bi andil na ko koom bu bari bu bu bu mag a mag a bi mën naa koo tënk ci ñetti anam la daan jóge bi ci njëkk mooy ñi nga xam ne na leen joxon len digal ñu sanc ay dëkk buñu mosaan bay ba mbay ma soti ñoy lañ koy jébal lolu dafa daan jouer ci kom kom bi te lu mel non mën nañ ci tuddu ku melni Cheikh Ibrahima Fati mën nañ ci tuddu ku melni Cheikh Sidi Yane mam Cheikh Anta mën nañ ci tuddu ku melni Cheikh Mandoumbe Mbacke mën nañ ci tuddu ku melni Cheikh Massamba Diop sar mën nañ ci mën nañ ci tuddu ku melni Cheikh Ibrahima Fall waye mën nañ ci tuddu ku melni Cheikh isa jenn ñi ay daara yu Magamak mag lañu yoron yo la fay jugee bu ñu ñëwee dañ koy def ci keesu social gi nga xam ne moom la sëñ bi keesu social laa ko tuddee ndaxit kees gi murid ñoo ko fi daan indi waaye ci julli ñi la daan dem ak képp ku yàlla bind képp ku yàlla bind maanaam yemutoon rek ci euh, doomu aadama yi sax ñaareel bi mooy li indi woon koom-koom bi mooy addiye yi ñu daan joxe addiye yi addiye yi nag am na ci ñoo xam ne bu ñu ko déggee dañ koy dañuy jàpp ne jumtukaay la boo xam ne ab sëriñ da koy utiliser ngir exploiter ab taalibe déedéet waaye demeewul noonu addiya relation la boo xam ne dafay wane ak mbokkoo am nag ay ay ay ay jeexitiru ak i social ak économie yu baree bare addiya doon Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Issa Dieng mi nga xam ne jàpp nañ ne ñu baree bare dañu jàpp ne ci gënoon a mën a joxe addiya ci lañ bokk saa yu mosaan gis sëñ bi rek dañu jàpp ne mënuñ ko ñàkk jox addiya loolu sax xëy na moo law ba ci Baye Fall yi ba fu ñu gisee eh, bokk ci ci kër sëñ bi lu ñu yor rek ak bu dee alal baax na bu dul alal waaye dañu fexe ba jox la addiya wax nañ ne eh, am na ci sëñ bi sëñ bi it ci ay jamono ñu bàyyi xel ne dawuñ ko jox addiya alal kase cheikh mamadou bassir net la ñu ci minan ne da lañ ko jox addi alal ju wax ak alal ju nopi da da nga gis ko xamne addi xam xam lako daan jox ak xalaat indi bopam rek ngir jangale ak bind ak di copier li señ bi bind di ko joxat addi amna ñoom ne seen waxtu lañ ko joxon addi ngir daan ko liggeel ci julli cheikh mamadou mbé mom kenn mënu ko won ci addi na xam ngeen ne mom lañ wax ne mo ñëk jox señ bi junni bu dajé junni bu dajee ak junni nga dajale ko yow kase dem jox ko sëñ nee nañ moo ko njëkk def loolu euh, sëñ Dagana nettali na ko wax na ne it bi mu ko jox àddiyee junni ji booba Seex mu bi amul benn taalibe waaye ci ay pexeem ak i ak ak i lijjanteem rek la ko jaare xam ngeen ne siiw na it ne Seex Mamadou Moustapha taawam boobu moo ko mujj jox ab junni loolu ci euh, mujjug tabaski ama hamsas ñetteel bi mooy nag sas yi nga xam ne moom la sëñ bi daan def te loolu xam ne am na ci jumaay njaareem ji nga xam ne waxoon na ne digle woon nañu dajale ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett euh, nga xam ne booba ñi sëñ suñ mënuma la féetale woon mbokki boppam yi euh, waaye Cheikh Issa Diène la féetale woon taalibe yi xam ngeen ne sax ngir xeruk murid yi ak seenu baax taxoon na ba suñ mujj bëggoon a soppi aw santam ngir yeex bu ab listam yeexoon ci wàllu googu xay na loolu day cosaan ci ñoom mën nañoo def lu baax waaye day yeex euh, euh, jàkka jooju jumaay njaareem jooju murid ji dépensé nañ ci lu toll ci 300 millions francs ci jamono yooyu loolu nag boo ko doon xool léegi ay milliards la biñ demee ba ci bam ba mu sotti sëñ bi amoon ngeen ne loolu ñu tabax jumaay Touba ba digle woon ci atum 1344 ci gàddaa gi 1925 yónni woon na Sëñ Mbàkke Busso ab lettre boo xam ne da ko yóbboon ci tubaab yi lettre bi siiw na lool ci 1926 la digaloon murit bu ne mu joxee cent 140 francs daal di waxoon ne ku ko mën a joxeel ak njabootam yépp na ko def booba wax nañ ne murit yi dajale nañ lu tollook cinq millions francs ci jamonoy sëñ bi kon noonu la continuer ngeen gis ne kon sëñ bi am na lu mu fekkoon ci ak yàqute ci foyer diine ci ci ci ci ci ci ci cim cim tambaambalu ci niñ ko mën a waxee noonu daal cim tambaambalu mu métti moo xam ne yëmu doon rek ci ci ci ci ci Samba Soura Bali yi amatu naas yi waaye dafa lawoon ci ñëpp waaye fekkoon na fii it ak deltu ginnaaw ci wàllu économie xamuñ nu ñuy jëfandikoo alal nuñ koy saytoo nuñ koy dépensé mu wan leen ci aw yoon moo indi sas yooyu moo indi addee yooyu waaye moo indi tosaaroo googu ba mën a amal njariñ wi mën a amal njariñ yoon it njariñ yu bari yooyu nga xam ne juñu nañ kon sëriñ Xaamid yaakaar naa mën nañoo tënk foofu ba ci kanam incha allah. jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir euh, wax ji am na solo lool ci taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci wàllu économie euh, li ci leeral yaatu na te it leer na nañ yaakaar naa jërum ñu ci jaaraat. Euh, loolu mu doon taxawaay yooyu mu am rek moo jur moo juroon ci ay jamonoom ñu mën a am euh, indépendance ci yu bare bari tudd nga ko rek ci lu aju ci defar wala taxawal gi ñu taxawal jumaay njaareem loolu murid yi dong ñoo ko def yaakaar naa gisaguñ moom fu ñuy ab lettre wala demande buñ ne sëñ bee ko bindoon wala bindlu na ko mu jëm ci ñeneen ngir demander leen ay aide ngir tabax jumaay njaareem bu dee demande kay peut-être day doon demande pour autorisation waaye sëñ bi mas naa demandé nangam ci lu jëm ci financièrement moom yaakaar naa gisaguñ ko lu ko waraloon mooy xamoon na ne faaw mu liggéeyloo murit yi ci domaine yu baree bari ngir ñu mën a am seen autonomie ci wàllu économie ba duñ jëggaane fenn lenn loola it mooy wéy ba fi mu ne nii rek moo tax pouvoir bi ñu am. ak wacc way biñ leen di jox lool moko ko ndax soxla luñu kenn dara xeyna lool boy ñewat ci tomb ñaarel bi da nga am lo ci junj muy lu am am solo ñi ngi lay sant bu baaxa baax ci waxtaan wi leer na euh, tey tënku na ci li ñu soxla woon ñu jàll rek ci tombum ñetteel bi euh, ci wërngal bu njëkk bi muy euh, te ki koy amal muy sëriñ fàllu rafaa yi muy wax ci al jaanibul ijtimaai wàllu social moom tam yoon la ci am ca sëriñ ba sëñ bu mag bi taxawaay yim ci def bu noppee dana ñëw it xëy na ci ba ci jamono ji buñ delsee ci moom nag mu euh, laalal ñu tuuti ci lu aju ci wàllu réseaux sociaux yi ak ban taxawaay walla ban Eh, wàccuwaay la ko murid yi war a jox ak nan lañ ko war a jëfandikoo ci jamono ji ngir jaxasoo gum jaxasoo lool te bari ay ay yëf-yëfaan yu ci bokkut kon ngir bañ a guddal rek dañuy jox sëñ Fàllu mu daal di dugg ci tomb boobu nga xam ne moom lañ junj léegi bismillah aoudu billahi min ashaytaan rajim bismillahi allahuma salli ala wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim taslima السلام عليكم ورحمة الله مانجي نيو موكيب تاي زيار ديتي جيتال كيغا خامني مو في نكال الشيخ الخديم الشيخ محمد المنتقى نيان سون بروم يوك او فنام بولي تي اك وير با تي ليغيال الشيخ الخديم موتاليكو اندكو اك موك طالب دي بلال اب nuyoo akuk ziar akuk ndokkeel sunu kilifa gi nu fekk si fii di Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Chouaib di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax di seede rek ni ko mbokk yi waxee ak ak bëggam lu baax lu ab murit gàtt gàtt xam-xam ak gàtt gàtt ak dégg dina ko xam dina ko dégg muy loo xam ne nag. Euh, dañ koy ñaanal lim ci sàkkuti ngërëmu Cheikhul Khadim mu am ko waaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci tawféex jooju mu am ci jog gi ci tànku Cheikhul Khadim boobu di taxaw tem ci nit ñi jariñu ba waral moom sëriñ bi lépp lu mu daj gisuñu ci loo xam ne jëmmi boppam ji moo ko jariñoo nit ñëpp nit ñi rek ñoo ko ñoo ko jariñoo ñaari sang yi waxee léegi rek waxtaan wi suñu ko dégloo suñu dégloo sëñ Galas Bamba déglu déglu sëñ Abdul Xaadir dañuy comprendre ne euh, sëriñ bi niñ koy woowee yenn saa yi mën du noonu bari dañ koy wax xeetu ay boroom xam-xam ak yooyu boroom xam-xam daa dafay am lu muy xam am lu muy umpale waaye bu ma ko don teunk man ci nitu yalla la koy teunk nitu yalla mo tagatu ba ag fenn fi digante mak yalla bu ko defé sun borom dootu ko xañ dara ci bopam te sun borom momu bepp wal ku ne xam mo koy joxe su ko defé kon su nekké nitu yalla wàllu go jël ci wàllu dundu gi rek day day fess del ci wàllu gogo motax tënku ko ci borom xam-xam yeen saa dina la tecc ci buntu bo dul mën genn motax boko tax ci nitu yalla lepp lo waxtaanee ci mom kuku dégg du ko ndax nitu yalla la mo waral ñu wax ci xam-xam wax ci économie wara wax ci social te bu ci nekk da ngay fogné fofu rek la do yëngu sëriñ bi nak fi mu fekk dunduk social gi dundugu doy war la ko fekk. ci wàll yu bari nag su ñu jëlee diine ji diine ji li tax mu dëppoo ak social mooy ay nit ñoo nekk ci dëkk bi nit ñooñu dañoo xamante waaye nag diine ji mën naa jur ñu taqali ko xam nañ ne saxaaba yi am na ñoo xam ne jàkkaarloo nañ ak seen wéjur yu góor xeex ak ñoom amna na ñoo xam seen i mbokk yuñ bokkal wayjur wu jigéen ak wayjur wu góor lañ lol lool xeex ak ñom ñi ñu ray leen loolu warees nako jangat jàngat mën nañoo xam kon diine day jeexital bu baaxa baax ci société bu ko defee sëriñ bi fekkon na fi lo gu metti ci walu ni ñi dundé diine ci fi la bok fe la bok aw maa ngi wax sëriñ bi fa loolu la fekkoon na fi loolu mooy diine ji ci général fekkoon na fi tamit ak tàqale ko ci euh, ñiy dund tasawuf koo xas a xam ne bokkoo leen tariqa boo leen nekk rek dootoo ko considéré loolu tamit sëriñ bi fi la ko fekkoon fekkoon na fi ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñoo gën waa dëkk sangam ak waa dëkk sangam ci ab judd rek du ci xam-xam lañ leen gëne du ci ragale yàlla fekkoon nañ fi tamit ñoo xam ne dañoo taxawoon ci kaw bopp nit ñi teg seen ci seen kaw loo xam ne nit ñi suñu ñooñ ko suñu ko woon a bañ doon ko def parfos te bëgguñu ko woon yi may wax nii yépp ci société bi sëriñ bi nekkoon ci la ko sëriñ bi fekk waaye yan taxawaay la ci am suñu ñëwee ci tomb bu njëkk bi tomb bu njëkk bi moo doonoon xeetu parparlo gi amoon ci diine ji benn bayit bu gàtt la ci sëriñ bi wax fii ba suba mën nañ cee taxaw di ko leeral duñu fi jóge nee nañu képp koo leen gis ak gémmiñam la ilaha illallah di ca génne bu leen ko noonoo loolu nag buñ ko jàngatee dañ ciy dégg ne bu ñu xasee xam ne kii sunu mbokkum la yu bari war na ci ñun suñu digganteek moom waaye la ca jiitu ca war ga mooy sutural ko maandu ca moom loolu suñu ko defee bu ñu ñëwee ci penc mi suñu diggante ak suñuy moroomi jaam benn jafe-jafe du ci am nit ki soo ko jàppee sa mbokk maandu ca moom te loo ko xamal ne cell boo leen dajee ci penc mi loo leen songandoo di ngeen ko daan fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa nga xamne kep ku nango nek talibé mom fofu nga wara nek sa digënté ak kep ko xamne la ilaha illallah lay wax kon tomb bu ñëk bi limu fa fekkon ci jamono ci parpallo ci walu diiné ak bañanté taxaway bobu la ca am ta mëna ci joxé misal yu bari niñ ci euh bokku na ci rek sëriñ bi léral na ñun suñu digënté ak ñi nga xamne ne bokkuñ ñun sax diiné moy di jëflante ak ñoom loo xam ne yàqul suñu diggante ak ñoom ci wàllu diine wax ñu ne boo leen di bëgg nit bëgg leen ko ngir lim gëm yàlla boo leen di bañ nit tamit bañ leen ko ngir ngir lim lim lim yàlla jàng nañ ko ci am bindam ñaareelu tomb bi mooy parparloo gi mu fi fekkoon ci wàllu tariqa tariqa sangam laa bokk kii bokk tariqa sangam duma ko lijjanti bal sax damay jàpp ne maa ko féete kaw loolu nag ñun ñëpp xam nañ li mu jur ndax loolu ci histoire xam nañ ne taal na ay guerre taal na ay guerre ci parparloo googu sëriñ bi du mu ñëwee dañoo xamal ne ñun ay murit lañu murit nag yàlla lay wër yàlla nag toll na noo xam ne màgg na màggaay goo xam ne am na fulla fulla ju toll ne fépp mën na faa def lu baax fépp mën na faa def lu baax moo tax ñun murid yi ci ñun ngay fekk boo toogee koo xam ne day waxtaanee ab sëriñam boo xam ne du murid lum ko waxal ci lu baax lu mu rëy rëy lu mu bari bari murid ba da koy yéene ndax loolu la ko Sëñ Tuubaa jàngal ànd ak nag xam daraja ji Sëñ Tuubaa am ci diggante yàlla nangu saxal ne sëriñ bi moom jiitantewul ak kenn ci ay daraja loolu buñ ko dencee ci sunu biir ba noppi day waral képp ñu dégg mu wax ab sëriñam lu mu rëy rëy ci ay may murid yi moom dañ ci am xol sedd guy duñ ci am benn ñëgg-ñëgg loolu moom lañu ñu bi yaatalal ci téereem boobu di masaalikul jinaan wax ñu ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawaun intama li ila al jilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi id kulluhum qataan ala sawaabi kon fekkoon na fi ak parparloo ci wàllu googu mu dindi ko ci ni mu doon yare li gënoon a nekk jafe-jafe ci ab société nag mooy xeebante xeebante lu baree baree bare la mën a jur ci ay jafe-jafe xeebante bi nag lu bari mën na ko waral nit dana juddoo ba sàngam bokk ci giir sàngam giir sàngam nekk seeni jaam seeni liggéeykat ak noonu ñu jaaree ci xeeb leen te fekk yàlla suñu boroom wax na ci alxuraan ne li tax mu sàkk ñu wax nañu ko wax nañu tamit ñun nit ñi naka la ñuy gën a lente na naka la balaa nit a gën nit naka la war a mel yaa ayuha nnaasu inna xalaqtaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum nga xam ne kon kenn amul woon sañ jàpp ne diw ak waa diw sàngam maa leen ñoo leen gën ñun ñun ñoo leen gën sëriñ bi fekk na fi loolu waaye ñun ñëpp xam nañ ne sëriñ bi jël nañ ñu xam ñoo xam ne daa am lu leen xamee woon mu jël leen di leen jàngaleloo alxuraan ak di leen jàngaloo alxuraan ak di leen ko bindloo fekk ñoo xam ne lañu xamoon ci ñoom bokkut ak loolu nit ñi doon doon leen ko xoolee mu xëcc ko ba mu ñëw ne ko kaay toog fii di jàng alxuraan ñuy dégg. kay tok fi di bind alquran ji muy xol amna ñeneen ño xamne liñ leen xamé won moy walu alquran gi mu jël leen di leen defarloo ay lal di leen di leen teggulo ay jaafure xam nañ leen ñepp kon niko islam leer le kon ta société bo gis nak amul lolu manam amul nit di xol moroomu nitam japp ne moko gën société bo ma nga tambalé dox fekkon na fi tamit ñun nit ñi ñuul ñi am kompleks ci ñaar ñaari gan ñi amon senegal amna am amon na ganuk tubaab ak ganuk nar ganuk nar, dañuy am ci mom complexe ci diine ñu japp ne comme moy wax arab comme mo dëkk barab euh ñun mom fi lañ dëkk senegal wax dëgg war nañ war nañ ko xol dal tek ko ci kaw waaw ndax julit la waye nak lolu kenn gënewu ci kenn comme ni ko waxawon ci alcorane tubaab gi tamit noonu tubaab bi ñëw na bari doole am alal am ay jumtuwaay fekk fi ay nit nit ñooña tamit am ci ñoom complexe waaye complexe bi sëriñ bi doy na ci misaal ci wàll yépp sëriñ Tuuba mooy koo xam ne fii mu dëkk fi la amee lépp far sax ñu ko doon jéem a génne dëkk bi sax bañ ko fañ ko yóbbu sax far ay nit ñu ñu ñoo fa dëkk maanaam nga xam ne lim guufaan yépp ci dëkk nit ñu ñu la ko guufaanee ñu yóbbu ko ci ay naar yoo xam ne ci seen jamono ba léegi nii sax ay dëkku xam-xam la waaye teewut amul benn jeexit bu ñu def ca moom far sax dañoo mujj nekk ay taalibeem ñuy nekk ci ñaar fan juróom-ñaar ci koor jàpp nañ ne ci la moo li ci gën a wér ci riwaay yi mooy ci la sëñ bi euh, jëlee weydul ma xuus weydul ma xuus googu kam ko jox kam ko njëkk a jox du ab sénégalais nga xam ne kon li ma bëgg a wax fii mooy moom moo ñu jàngal ne. ab société ngir mu taxaw nit ki ab daram wala ab juddoom teewu ko mën a am xam-xam teewu koo mën a am lu baax fa laysa yujibu sawaatal jismi safahatal fata wa su al fahmi kon ñun ci société bi sëñ bi fekkoon nit ko ñuul joxaan na ko ab dayo joxaan na ko ab dayo ci ne moom nit ko ñuul la waaye nag na xam ne xel yépp nag la yàlla tolloole te bépp société boo xam ne gëm nit gëm na boppam ci maanaam nit ñi gëm nañ seen bopp société boobu dana dana taxaw ñun ñëpp mën nañu joxe ay misaal ci ay réew yoo xam ne euh, dañ leen a embargo ay at ñuy wéy di dox mën naa ci joxe exemple Cuba am na réew mu ñuy wax Cuba goo xam ne fanweeri at yi tubaab bi dañ leen woon ginnaaw waaye sentiment désespoir boobu ñu am moo tax bii mbas mi corona xewee réew tubaab yu mag yi dañoo woo seeni docteur ñoom ngir ñu jàppale leen kon ndekete gëm sa bopp ci ab société mënta ñàkk sëñ bi nag loolu la fekk ñàkk gëm sa bopp par parloo ci diine ak ci tariqa par parloo ci ay ci ci ci ci ak mbokk mu jëlee ko fi ba mu set wicc ba murit boo gis bu xasee fi boo doon balaa nga doon xam ne sëñ bi jëlee na ko fi nga génn Sénégal dajeeg ma ma ma ñaa exemple nga nekk foo xam ne bëriwul ay sénégalais nga dajeeg ku col mu murit fi nga taxaw da jàpp ne yaa ngi Tuubaa leen di waxtaan foo mën a fu leen mën daje ci àdduna boo leen di waxtaan li ngeen di waxtaanee moom boo ko waxtaanee woon ci jumaa ji tamit ma dina mën a jolli nga xam ne kon euh, sentiment wu dé décomplexé boobu ak yu mel noonu balaa nga ko doon xam sax nga dajeek am murit ci biti kon bëggante googu ci suñu biir ba sax am nu ñuy waxee am nañu fii ci Sénégal am na ñoo xam ne buñ bëggee wax diw day laal ndox dañuy jaar ci digg ba buñ bëggee wax diw. day jël soxna dañuy jaar ci digg bi buñ bëggee wax diw day day day dallu dañuy jaar ci digg bi nga xam ne am nañ suñ nu ñuy waxee noo xam ne ñun dañ koy dégg te te loolu dafa am solo mooy di jaar lu nekk nga bañ a jaar ci digg ba li muy jur ci diggante nit ñi mooy ak wormaalante ñu ñëpp xam nañ ab société bu wormaalante lan lay lan lay lan lay jariñ te loolu njariñ yi mën nees na ko xool ci wàll yépp dama ciy wax ay tomb yu néew tomb bu njëkk bi mooy tax na ba murit yi ñi am di sax dàkk ci di jàppale ñi nga xam ne amuñu mën naa coo joxe misaal fii ci jumaay Touba ci Touba kenn xamul ñaata nit ñoo fiy ndogoo bis bu set ci koor gi boo demee ma Masaalikul Jinaan noonu nga fay fekk ca Dakar ak ci yeneen barab yoo xam ne murit yi ñoo ko moom loolu la muy jur ci ab société mooy nit ñi dañuy nangoo dañuy Abdul Khadir doon waxtaan rek mooy économie moy nit ñi bu boobaa dootuñu xaar ñu leen jité de leen jeexit lu reey lay am ci économie ak social ñaareelu tom bi moy ci mourid gi wala serigne bi ci sëriñ Tuubaa ci bopam fajal na aajo ay nit bataay aajo zahir ak aajo batin la tax ma wax faj aajo faj aajo da amu ñu jor ci société bi bo xamé ne yow sa aduna ak sa alakhirah mo xam ci zahir ak ci batin seigne touba mo ci taxaw ba mu lepp lu seigne touba wax di def ku nekk xam na ne dimu ndigal limi def ci ab société bu ne bu yëfee ne keur keur kep ñu ne seigne muntaha mo ne na murid yep tok murid yep dañuy tok loolu amul lu ko gën a rëy te jur rek aajo gi nga xam ne la seigne touba dekké ak murid yi te da ko rafaatale njabootam gi kenn ku nekk ña fekke woon sëñ Modou Moustapha mën nañoo wax aaju lu yu leen sëñ Modou Moustapha fajal ba taay ñu fekke woon Cheikh Mouhamadul Fadil ñu fekke woon sëñ Abdoul Ahad ñu fekke woon sëñ Abdoul Khadir ñu fekke woon Cheikh Salih ñun ñi fekk sëñ Mourtada sëñ Mountakha mën nañ ko mu fajal aaju sàngam ci zaahir rek ci baatin te loolu day def jeexit boo génnee ci mbedd mi ni ngay doxee ni ngay waxee di nga ko di nga ko ko rusee lu mu tuuti tuuti loolu jeexit lu mag la ci société bi mooy fajug aajo gi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa dëkkee ak murid yi ak njabootam gi fajug aajo gu zahir ak baatin nag laay wax sëñ sëñ Abdou Samad mii diw diw sàngam lijjante na ko kayit ba tey diw sàngam yóbbu na ko mànka ba tey diw sàngam diw sàngam jox na ko nangam jox na ko kooku su fekkee nit la bu ko sëñ waxee dara dana taw dana taxaw xool ba xam damay damay bañ wala deet te loolu jeexit lu mag a mag a mag lay am ci société bi kon pajug aajo googu itam jeexit la yi nga xam ne moom la société bi di am ñetteelu tomb bi mooy nite gii nga xam ne moo nekkoon ci sëñ Touba nite euh, mbokki busu busu yi sëñ Touba nam tolloon ci daraja mayug yàlla gaag ragal yàlla gaag ñàkk jot ak yépp teewut daan faral di tooñante ak ñoom teewut daan na ku ci am njaboot mu jox la aw tur ku ci am njaboot mu mu lijjanti ba xam mi ngi jàng alxuraan wala mi ngi jàng xam-xam wala yu mel noonu loolu ak nite la ak àndum nawle nag ndax nit ñi nag yàlla leen moom fi mu ne nii yàlla ci boppam woon ñaari jaamam toog nañ mu ne benn jaam bi su jotalal sama benn jaam bi kooku bañ yàlla di ko laaj lu tax nga bañ yàlla mën na koo bañ lu tax nga bañ muy expliquer kii bind nga ma fii mu bind nga ma mu naa ko dinaa la baxaar ba yomal xiyaam déet yàlla kon yàlla comme yàlla moom moo sàkk ab jaam ne ko defal mu lànk te taxul mu jëfandikoo coobareem ci moom rawatina nag doomu aadama kon faaw nga xam ne nit ñi itam boo ànd ak ñoom da ngay ànd ak ñoom àndum nawle xam ne yow li nga leen gën a lii la te ñoom nangu nañ ko rawatina nag murid yi nangul sëñ Tuubaa kon moom sëñ bi lim ñuy jàngal ci xam-xam yëpp doo koo jëfewaat ñun ginnaaw nangul nañ ko amul benn yoon bu mu jëfandikoo nangu ko ci ñun faaw rek ku jàkkaarlook moom loo ko doon mën a wax soo jàkkaarloog moom ñaari baat lay wax ak yow nga wàcc ngir jëflante bu rafet ba ak xeet yu mel noonu kon moo loolu tamit fekkoon na fi ñun ñëpp xam nañ moo xam kilifa diine la moo xam kilifa aada yi fi ñu nekkoon fi mu ne gouverneur u Saint-Louis booba woon ku ne na woon wax na Sëñ Tuubaa tontu ko duñ ko gëm ndax daa tegoon fu kawe jàpp ne jàppee boppam du nit dafa ne jamono day doxee noonu mooy kilifa day àgg foo xam ne day jàpp ne ñi ñi ci suuf wut a ñoom waaye sëñ bi li mu doon kawe kawe nit ñi nit ba tàyyee wax ko wax ko soxla mu mu mu ko am sëñ Moustapha Guèye Yarawaay di nettali ne bu sëñ bi mu mosaan a génn ci ëtt bi coow li day bari lool ndax nit ñi dañuy waxandoo seen soxla pour mu dugg seen nopp coow li sëñ bi sama lii sama laa sama laa mu bu ko defee kon wàcce googu woon boppam ba nit ñi mën a wax ak ñoom tamit lu lu am jeexit la ci ci ci ci ci société bi fi muy daanelee mooy réalisation yi nga xam ne moom la murid yi def ci jàkka ci juma ci ay daara ci ay école ci ci yu bari loolu la mu jur ci social mooy social li mu jur ci société bi mooy dajalo go gu nit ñi dajalo ci di ndo dara loolu tamit day wat ci gëm sa bop gi doon wax léegi euh, joxe naa exemple ñi ndogu si ci jumaay tuba kan mo xam ñaata nit ñoo ma sa jangé ci école seigne murtala yi suñ murtala doomi seigne tuba far sax moy ci njabotam gu mujj la bok ay nit du ci sénégal dong rawatina ñu bare bare bare seigne murtala ci école seigne murtala yi lañ jangé ñi daaree seigne champs bu lañ jàngee ñii xelkom lañ jangé te lolou li muy jur mooy li ma wax léegi bu fi mu ne nii yow mi nga xam ne daal émission bi nga jàngee woon yow mi nga xam ne xel kom nga jàngee woon yow mi nga xam ne école Serigne Mourtalla am loo yëg ne war nga ko delloo njukkal yoonu murit te loolu li taxaw tem ci jariñ nit ñi te jariñ nit ñi nag njariñ li muy amal ki koy def mooy saa su nekk yi du jóge ci moom mooy nit ñi danañ ko bëgg nit ñi danañ ko ñaanal nit ñi danañ dañuy ñaan lam am yokk ndax saa yooyu fajal nit soxlaam rek xamal ne mi ngi lay ñaanal xamal ne dina la sopp xamal ne du bëgg li nga yor li nga yor di jeex kon taxawaay yi ma wax yépp sëriñ bi fekk fi la ko fekk lii la ci def taxawaay yi tamit ci la murid yi nekk xam naa maa ngi xaar ba kàddu gi dellusiwaat ci man maa ngi jégalu bu baax. jërëjëf sëriñ Fallou wax ci am na solo lool. ci taxaway bi nga xamne serigne bi amal nako ci walu social tud na fi yu bare bari nak eh, ci yo xamne amon na fi ci jamono joy ci walu parparlo ci lu melni ne ci walu turuq yi kii naan fii laa bokk na fe la bok serigne bi ñew wane ne yépp baax yépp baax lolu moy kon jafe-jafe bo amoon mom non la ko dindé wayé ci walu askan amon na jafé jafe waaw ñu wax ko fii laa bokk ci ñoom diw fami sàngam ba tax sax man duma jaxasoog ñee masalan ci jëlum soxna ak yu ko niru sëñ bi loola sax da koo dindi buñ delloo ca xarnu ba sëñ Moussa Ka nga koy wax mbàkke gëndu fi moom goyaar kon ummi mbàkkeeg taar bakaar dee su ko may sëriñ goyaar xamut ku bon ci xarnu bi loolu lay firi rek bëgg wane nit ñi yam ci li ñuy gëne mooy ci ragal yàlla inna akramakum indallahi atqaakum euh, kon yooyu moom sëñ bi jafe-jafe yi mu fekkoon yépp dañuy gis ni dindi na ko waaye ne doonte ku ne xam na fi àggoon ci suñ boroom ak xalwata yu bari yaag lépp teewut daf daan nemmiku nit ñi di xam fuñ toll di seeti ñi wéradi leetar yu ñu gis yoo xam ne danaan diw nañ ko jox diw wala mu bind leetar kenn ci taalib di ko laaj ana diw ana sarak nangam wala nuyul ma diw yooyu yëpp euh, maslaa la ak it loo xam ne day gën a yaatal societé bi ñu gën a dund euh, ci jàmm fajuk aajo gi moom ci zaahir ak ci baatin luñ ci wax rek yaakaar naa euh, du jeex buñ ci nekkoon ba suba yaakaar naa du tax mu jeex mu muy am am solo yoo yoo xam ne leeral nga ko fi ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax Euh, bu am solo muy liñ doon wax léegi lu aju ci wàllu réseaux sociaux yi ndax par parlo googu ngay wax sëñ bi fekkoon ko fi te mu dindi ko ñun dañu remarqué ne bëri na yu ñuy wax di ko xebet ci affaire u réseaux sociaux yi problème mu par parloo li ci ëpp moo ko indi bis bu set nga liir ay commentaire walla ay video walla ay son yoo xam ne nit a koy wax di ci dal nit ta da ngay xamne rek par par loko waral ngir fam far ke faru fa yooyu nag yu mata baye xel en tant que mourid war nañu xol ñun ban position la ñam par rapport ak li nga xamne ne jum Galas Bamba euh, mu la ñu root rek ci xam-xam ak taxaway bi ci mouride am ginnaw serigne bi ci lu gëna teunku rek bu ko def dir buso doga ci E sëñ Fallou Rafaay bismillah sëñ bi jërëjëf sëñ Aminu ngi rafetlu kàddu yi fi jot jaar yëpp kon ñu tënk ci lañ nekkoon rek ci wax ginnaaw bi waxee li ni xam-xam wax ci ak lenn lu ñu ci mën a wax ci yoo xam ne ay indiasa la tënkee foofu noonu ku ne xam na ni sëriñ bi comme ni ñu ko waxee léegi murit yëpp da leen digal ci ñu góorgóorlu ci xam-xam ak tënku ci xam-xam waxoon naa ci njëlbeen gi ne digal yépp yëpp ñu far farlu ci dañuy wax mënta ñàkk ci murit mooy dafa njëkk wax ni awlu waajibin xalal xalal muridi taxsilu saadihi min tawhidi mu ne am murit bala moo jug nee na di wuti wéet wala muy wut ay taalib yi ñu muy dajale yu mel noonu Sëñ Tuubaa na nga am ab yóbbal bu doy ci tawhid mu teg ci ne bu ngeen amee ab yóbbal ci tawhid ba noppi muy mooy muy seenum ngëm maanaam seen xol ngeen defar ko na ngeen fexe ba xam seeni farata na ngeen fexe ba xam seeni farata mu ne wa bahdahu tahsilu ma yusahihu bihi furooda furoodal xëy ni fii maa saraxu mooy na ngeen fexe ba xam seeni farata mu ne ñetteel bi nag bu ngeen amee ab yóbbal xam seeni farata mu ne na ngeen wut ab sëriñ bu leen bu leen gunge wa bahdahu yasluku in ramal wusul yaquuduhu loo jàng-jàng loo bari bari xam-xam dangay am boroom xam-xam ku ñu ku ñu tudde boroom xam-xam boobu bu amul kilifa moo ko yàq lu ko neex wax lu ko neex def fii nag loo bari bari xam-xam ak koo benn kilifa rek nga am muy Cheikh Mamadou Mountakha da ngay noppi ndax yonante bi sallallahu alayhi wasallam bam fi nekké sahaba yi kenn daout wax benn baat guddé beccak ak lu mbir danger naa si lu dul da ngaa dem ci yonante ba comment njàng mi góor ak ni sëriñ bi biir këram jigéen ñi jàngale góor ñi jàngale loolu mën naa ci joxe misaal moo xam ne jege na ma ma am naa ñaari maam yoo xam ni kenn kee jàngal kenn ki maanaam soxna Amin Tamal bu mu dikkee ci kër soxna kër Sëriñ Tuubaa soxna Awa Buso ko jàngal moo ko jàngal moo ko yar ba soxna Amin Amar mujj nekk ab jàngalekat moom di jàngale am na ba kon kooku da xam ni boroom xam-xam la nag sant nañ fi yàlla ndax dem nañ ba am eh, eh, jamono ji ay daara yoo xam ne daara jigéen la daara yoo xam ne ay jigéen rek ñoo fay nekk kon xam nga ni loolu manees na ko boole maanaam ci indiasa bi am loolu fayul maanaam mi ngi wéyu di am bis bu set nga gis ay jigéen ñu bari bari ñoo xam ne maanaam mokkal lañ alxuraan bind ko mën a toog di la eh, di la di la ko wax di la waxtaanal ci xam-xam loo xam ni kenn di ko dindi kon sëñ bi it murit yëpp ni mu ko waxee ni ma ko waxee léegi foofu la leen diggoon diggaloon mooy jàngal jàngale moom ci jëmm daana wax ni moom de bu dee am na cat cat lenn la ndax nee dafa bëggoon a toog Tuubaa di jàngale di jàng ak jàngale ne loolu la bëggoon moom bu soñoon loolu lay def toog Tuubaa di jàng ak jàngale ne daan na waxee naan li mu bëggoon mooy taalam bii mooy fépp ci àdduna rek maanaam mu mu mu yóbbu fa ak matt mu dem kon loolu bokk na ci li nga xam ne day wane ni maanaam yitte jàng ak jàngale moom joxoon na koo itte daan wax naan e, maam no ak suñu ndaam daan na leen wax naan daan na wax lu bëri naan leen yéen damaa mënut a ko yéen. yéen ñaar ñii mënuma tàqali ko ndax kii moo yor alxuraan ji kii yor kii yor xam-xam bi ndaw yi ndaw yi it daa ni da leen a beral beraloon ak ak ak ak ay wax ak yu bëree bëri ak ay soññee ci ñu góorgóorlu ci jàng ak jàngale sëriñ bi yoonam wii maanaam ndaw lu ndaw ndaw jàng rek la xam ci moom jàng rek la ko def loo waaye def loo ko la leen mayis na ci wax lum ci bin lu bëree bëri ndax bo demé ci tasawudu ci xaar ci njëlbeen ngi rek wax nako ci neena ya ayu sibyanu la laa tastaqilu anil huda waye wabil ulu mistaqilu new na ngeen soxlo xam-xam de ay xam-xam lay wax na ngeen di dik ci bi ci ci mujj gi suñ tubaa xam ngeen ni bi ma waxee léegi inni ujaaxidu waye waxu bil himi bil hulumi wa bituqa ma mom hulum lay wax ay xam-xam xam-xam yemut ci nga xam si diine xam say farata rek xam boo mën a jariñoo ab xam la maanaam ab ci misaal ab bu dugg ci yoonu murit mënu ko mënuñu koo jàngal diine wala siin bi du dul ci tubaab kon xa kooku xam-xam la muy lam xam nag te amal na amal na ko njariñ ndax moo ko moo ci lañ ko xamale sëñ bi ci lañ ko xamale diineem kon sëñ bi yoonam bi tënkuwut ci làng tënkuwut ci ab làng rek waaye xam-xam bépp xam-xam bu am njariñ rek mi ngi ci biir kon loolu la daan wax ndaw ñi nañu soxlawoo ak njub ak soxlawoo ay xam-xam yu am njariñ daan wax yit ne yéen surtout sutu ñu bokk ñu ngi ni taaroo du ay xëccoo mbiri àdduna ay xëccoo kër walla ay woto wala yu mel noonu daan wax ne yéen seenub taar mooy xam-xam yéen seen taar mooy xam-xam bu ngeen amee lu ngeen sañsee ak yu mel noonu xam-xam kase la waaye waru koo doon jamalukum hilmun wa sahyun wa adab xam-xam ci la seeni tak tak ak nekk leen ci xam-xam nek leen ci jang ak jangale ne manam ci ci misal jamono ji lu beure beure da nga gis ci télé yi wala radio yi ño xam dañuy woote woote ak wilaaya te boo gisoon ñoom ñëpp dañuy Sëñ Tuubaa lañuy ñooñe tontu na leen nee na leen lii ngeen nekk nekku nekkuma ci woon mooy li mu wax ci bu kaaw ne alxilmu siimatuhum wal xilmu dayratuhum duuna daxaa wi wa inkaaril maqaamaati xam nga ñu tok ci télé kenn ku ne di wax ay xey ay xey ta kenn ku ne bo ne ko ku sa sëriñ rek mu sëriñ bi mu ne mu touba manam tuba touba sëñ tuba tuuma manam maanaam weddil na ko boppam nee dañ leen xam borom nit ñu bax ña day manam li ñu woon doon woon métier moy wuti xam-xam ak lewet ak nangul sen sen morom te bañ a bàyyi bu wóotu ñoon ay caaxaan ma ni ko ñun doon ay caaxaan te duñu weddante kon loolu moo nekkoon loolu moo nekkoon mbiram danaan tëkku tëkku lu bari ñoo xam ni ñi xam ne dañuy dëdduloo nit ñi maanaam sëriñ bi lépp lépp lu ñuy def ci yoonam wi maanaam xam-xam mënu caa ñàkk ak xam mënu caa ñàkk wax naa ko léegi su ma nee xam ab xam-xam nag tekkiwul ku jàng maanaam diine lañ ci la cay sa farata mooy li mënta ñàkk waaye tiwut waxuma nga jàng ko ci arab nii rek waaye làkk boo ko mën a jàng baax na làkk boo ko mën a jàng baax na maam ki ki nga xam ne xam-xam dafa jëm ci informatique kooku lam xam am na njëriñ te mën na caa liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi maam kenn ku ne la nga xam rek na nga caa liggéeyal sëriñ bi sëñ bi noonu la meloon ci biir këram maanaam ñim yaroon ci biir këram maanaam ñoom kenn bokku ci sa morom te ñun ñëpp ña nga doon liggéeyal sëriñ sëriñ bi maanaam ci misaal seex yi mu yoroon ci biir kër yi loolu bokku ñoo xam ne yow jàpp ne ab sëriñ mooy koo xam ne da war a jóg rek dem ca yoon fee manam seigne Paate Amar mënu wax kum jangal way man nga wax kum yar bo noonu ana daram kenn dula joxe joxañ ne ne moo nga fee day wax ni seigne touba rek moy sëriñ bi musa dajale ñett ñett ci do nga la musa dajé mu nek sëriñu tarbiya nek sëriñu taxliim nek sëriñu tarxiya nee na Sëñ rek la mos a daje waaye keneen ku dul Sëñ Tuubaa benn nga cee ma nekk wala nga nekk ci ñaar du ñett te dundam bi sax wane na ko dundam bi ndax am na jamono ji njëkk danaan jàngale bi mu ba ci yàgg ci avant muy dem ci géej ak yu mel noonu lu bëri ci yar tarbiya la daan def waaye bi mu demee njaaram ñëpp xamoo xamoon nañ ñëpp xamoon nañ ni daawul jàngale ci geneen façon la ko daan defe bàyyiwu ko woon waaye ñàngalum tëral nii daawu ko defe noonu tarbiya gi it daan laaj dafa laaj tàqoo te mootuma tàqoo kenn waaye tarxiya gi mosu ko bàyyi ñëpp moo leen ñëpp moo leen yéegi demoon demoon na sax ba ba jamono boo xam ni wax am na lu mu ci waxoon maanaam suñ mu dem ci jafe-jafe yoo xam ne amoon ko amoon na waaye lam koo xam mooy bàyyi ma bàyyi ma maanaam yéegi fu ma dara maanaam bàyyi ma yéegal nit manam nit ki dikki rek bu yegal ko nonu te jitalul xamal ko ak yu mel nonu ba ci la ko waxe won nako ma ngi lay denk nga nga nek ci jang ak jangale te bu musa ba te bu ko te bu ko musa bay waxon nako señ señ mu dem tax dara moytulo nit ñi ñu dedlo nit ñi xam xam ak di len ko ay wa man nahakum an at-tahallumi fa nahyuhu ila ad-dalal yantami ane ko man nahakum an at-tahallumi fa huwa khalifatul lahinil mujrimin wa man nahaakum ani taxallumi fa innahu yaquudukum li niqami ama ni maanaam mbirum xam-xam xam-xam képp ku leen ko dëdduloo bi ci gën a yéeme rek mooy nee na kooku mooy wuut iblis ci kaw suuf mooy wuut iblis ci kaw suuf moo tax murit buy murit mënta ñàkk ittewu xam-xam wala mu koy ñàkkal solo murit buy ñàkk ittewu xam-xam wala mu koy ñàkkal solo fenn dong la ko mën a teg mooy fa ko Sëñ Tuubaa man teguma ko fa waaye Sëñ Tuubaa ko fa teg wa min makaa'idil lahiinil mujrimi saddul muriidiina ani taxallumi nee na bokk na ci pexe iblis dëdd gum leen dëddloo am am ñàng loolu nag dañ cee war a jàngi lu bari ndax sëriñ bi ni ko sëñ lu waxee léegi maanaam nitu nitug yàlla kim doon doonam bi lim ci lépp luy jafe-jafe lu nar a ñëw maanaam bind na ko teg bam nee bam nee moom naa kaa ejal la xëy na mu rek sa dul mu di naan taxalu boobu lañu war a xam ne dana am maam moom lu moytuloo loolu dana am maam lu moytuloo nit ñi loolu day am force waaye iblis gi mu wax ni mooy mooy waral loolu loolu mooy solution loolu mooy solution bi moo tax mbirum xam-xam ku ko fi yëkkati maanaam iblis dana dana ca dana ca dugg moo tax li si mun taxaw woote ñu war cee gar la la mu waxoon Cheikh Moussa ne ko jumaa ji. maanaam sama loxo damm na ci na ci sa loxo damm wax sëñ Fallu ne ko sëñ Fallu nettali ko ci passé ne ko yow kuy ku ku ñëw na la ci fekk ku dem na la ci na la ci bàyyi te loolu sëñ Fallu ko nettali waaye ba mu ne ko ku dem na la ci bàyyi rek dañu waroon a xam ni bu si mën musuwaar na ba sëñ Fallu jël maanaam sëñ Tuubaa ay baatam noonu lay mel lépp lu mu wax rek maanaam ci boo seetante lay yëf yi maanaam da nga gis jafe-jafe yi ci misaal sëñ dane wa maskani sallim minal fujaari soo wax wam na wala ahli bi ma in jaari boobu lañ war a xam ni ndox moom saa bu jugee maanaam ay nit ay nit danañ indi jafe-jafe ndax daa njëkk ñaan wam wam noonu wa maskani sallim minal kon maanaam noonu la ci meloon lu lu wax rek dangay gis jafe yi nga xam ni maanaam boo setantalee dëgg dañ ko dañ ko ca gis bëy yu bëri bëri ak misaal yu bëri moom naa ko ca joxe joxe ci lu mel noonu danaan wax it ne maanaam yéen bu ngeen ni rawante seenub rawante wërta nekk ci lenn lu dul xam-xam liggéeyal yoonte bi loolu xam naa sëñ Fall dina ñëw ci waaye am na benn téere boo xam ne rek daanaka noonu la tudd mooy jës batu sixaar xan laxi bin li xidmatil muxtaar jës batu sixaar mooy luy bijj ndaw ñi xan laxi bin di leen bàyyiloo am fo li xidmatil muxtaar maanaam jëme leen ci liggéeyal yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam danaan wax yit ne xam-xam mooy ñoddi ni di xam-xam di nit ki jëmee ko ci lu lu koy jariñ wala lu koy bégloo noonu lay ñoddee nit ki jëmee ko ci ay lor alxilmu xaaidun li ma yasudu waaye wal jëxlu xaaidun li ma yadudu maanaam ñàkk xam-xam ay jafe-jafe lay jural lay jural nit ki doo taxaw doo doo taxawal mukk lu taxaw doo taxawal mukk lu taxaw ndax dalu ko lalu ko maam loolu lu taxaw ak xam lalu ko nag dama koy baamu maanaam bu dinu maa wax maanaam buñ nee ay ca ñu defal dara rek ñu ne nañu woowee borom xam-xam jàng diine wala ñu jàng arab déedéet maanaam buñ nee nañ tabax nañ woo ñi aay ci tabax buñ nee nañ lali basan nañ woo ñi xam nit ñi laleeg yu mel noonu maanaam lenn lu ne am nañu ko am nañu ko moom comme ni mu ko daan defee ci biir këram jàngalee ko ci biir këram nosal woon ko noonu ci biir ci biir ay ay ay këram Cheikh Abdou Khadir wax na ko wax na ko léegi nii danaan waxee it yéen na ngeen na ngeen soxlawoo xam-xam ak jëfee xam-xam te lépp luy ay caaxaan ak yu mel noonu ngeen bañ caa nekk kun sa si xaali bi xilmi diini saa xamalin laa tuhmilul waxta fii lahwin wa tuxyaan danaan wax ni ne maanaam ñi nga xam ni li ñuy def lépp ci xam-xam lañ koy teg mu ne ñooñ day yàlla dencal leen ay xéewal yu ay ay xéewal yu rëy rëy hindal ilaahi nihmatun laa laa tanfadu xaba aha liman bi hilmin yax butu an yàlla dencal na ay xéewal ñi koy jaamu te jaamu gi ñu koy teg te jaamu gi fi ñu koy teg rek mooy xam-xam xam ngeen ni suñ borom bi muy li nit ñi bari bëri ba muy wax ñi ko ñi ko ñi ko ñi koy ragal dane ñooy boroom xam-xam yi innama yaxsha llaha min ibadihi alxulamaaw sëriñ bi it loolu laa danaa wax ni maanaam lu ñu di dolli ko lu ñu di dolli ko xam-xam moo ci ëpp moo ci ëpp njariñ yoonante bi li ko suñ borom jox bëri na waaye bam naan ko waxal ma dolli la wax ko dara waaye xam-xam da la ko wax da ko waxee ne ko waxu rabbi sidnii ilman kon xam-xam buñ ci doon wax maanaam li ci sëñ bi bind ak lim ci wax ak lim ci tënk murid ji maanaam mën nañ fee fanaan kon mën naa cee joxe ay loo xam ni ay injaasal la ak loo xam ni jàpp naa ne it maanaam euh, li li ci sëñ bi wax ak jëf jim ci jëf moo indi résultat boobu tey suñ garas wax na ko léegi man ngaa gis nit ñu toog fi ñu bari ñëpp ñoo xam ne ay ndaw lañ kenn bukk ci ak sa moroom maanaam foo foo naane maanaam foo jàngi waaye bu ñu waxtaanee rek juboo te bu ñu waxee doo xam kii fan la kii fan la jóge maanaam ci misaal jot ay bii nii rek mën na ko leeral maanaam sëñ bii mar la nekkoon yéen fa nekk noonu wala sëñ Abdou Xaadir bi sëñ bi Iran la nekk man fii te ku wax doo doo doo sentir ni kii fii la jàngee wala kii fii la nekkoon ak yu mel noonu loolu sëñ Tuubaa rek moom moo ko moom moo ko am sëñ Tuubaa rek moom moo ko am mooy foo foo mën a dem ak loo mën a xam boo dikkee ab taalibe ngay doon. waaye am murit am murit ngay doon yoonu murit rek it mu am maanaam nga mën ngaa toog fii jotaay bi lim lu mat junni ndaw su ma ci ëppalee su ma ëppalee ci wax ji ñoo xam ni ñëpp jàng nañ am nañ xam-xam jub nañ nangu nu nangu nañoo dégg ndigal nangu nañoo jëf te yàlla tax loolu Sëñ Tuubaa rek moo ko am àdduna bi yëpp fi mu ne li leen jaaxal mooy ndaw ñoo xam ni maam dëgër nañ bopp te kenn mënu leen wax luñ dégg Cheikh Modou Mountakha suba bu soxla woon ñu ko fi Sëñ Tuubaa jaar fépp mën nañ ko ko bindal bu ko soxla woon ci guddi gi balaa 24 heures maam ñu indil ko ko ci ay làkk ci ay làkk yu wuute kon loolu maanaam day wane ni Sëñ Tuubaa taal ba mu taaloon maanaam dellul ginnaaw dama waxoon ne wa am si wa am si yuñ si yuñ si nii bi yow mi wa bexat maanaam dellu ginnaaw kon lim lim taaloon ak lim defoon lépp maanaam mu ngi jëm kanam kon yal nañu yàlla gën a taas ci bar ci barkeem fi may daanale rek mooy ñu rafet njort ci moom te moytu ñaaw ci ñaaw ci njort ndax xam daa ju daa juboo woon ak yàlla jegeek moom suñ dagana nettal na ci alminahul miskiya ni suñ tubaa jege woon yàlla nga xam ne lu xam-xam bi bari bari ak lu wax ji bari bari maanaam du du du def loo xam ni maanaam nit jële cay sik sàkk nee na am na benn naar bu tudd Abdul Wadud nee na da ko doon jubloo euh, jàkkam ji ci biir njaareem mu ne ko pour mu jublul ko ko xibla nee na bi bi naar bi di dem ci jàkka ji beneen naar bi mu àndal nee na mi ngi naan yàlla na yàlla na gàntal ndax nee na day bañ mu juum li ko Sëñ Tuubaa jàkka ji mu koy def loo jubloo xibla mu juum nee na naar bi ba mu ko defee ba mu ko defee ba noppi dikk ne ko man de bi may Sëñ Tuubaa eh, defal loo jàkka ji nee na bi ma xoolee penku damaa jàkkaaroo kaaba gi nee na kaaba gi la jàkkaaroo waaye loolu sax am na lu ko gën a yéeme nee na benn bis dugg na ci jàkka ji jàkkaaroog minbar bi te jël ñaan loxo yi def ko nii naan minbar bi de bu defoon nii fan minbar ba ànd ak moom manam koku xam nga ne ku jégué manam ku jégué yalla ak yenen ak yenen ak yenen kon ku yalla defal tawfiq nga am ci mom nga rafet ndot ci mom kon suñu borom man la defal ay wa yalla ñu yalla musal ci ñaaw ndot ci mom waaw te yalla gën ñu tass ci barkem te yàlla wombatal ko lim ko lim ko bëgg lepp te ñun ñepp ñu ko mom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullah jerejef jërëjëf sëñ Galas. wax ji am na solo mën nañ ko daal di tënk foofu rek tàyyi cee defaat ay taalixaat wala ñu koy talxiis dañu daal di jox rek kàddu gi mubasharatan Cheikh Abdou Khadir mu àggale ci lim ne woon ci lum mu gën a tënku rek euh, ci lay gëne ngir jotaay baa ngi bëgg a yàgg te bëgguñoo gën a sonal sëñ bi lool ci toogaay bi bu noppee ñu daal di jox sëñ Fallou Rafaay bu noppee ñu jox Cheikh Abdou Khadir loo mu def benn taalix bu gàtt rek. bu tolok 5 minutes rek ñu doga a jotaay bi bu amé kàddu yi señ bi jallale mu jallale ko inshallah bismillah ci abdou khadir ok jërëjëf sëriñ xaamit jërëjëf sëriñ fàllu jërëjëf señ fallu mi ci dess seen wax ji amna solo lol ma sha allah wa comme niñ ko waxee won nek xam nga señ bi bimu mu kon fofu la fekkon jamono non la ko jubbante yit la dëngoon ci jamono yépp la baaxutoon mu jëlé ko fi indi lu bax Euh, ci sancum dëkk yeeg defar nit keeg yooyu yëpp wax nañ ci ak lim indilaat murit gi ci wàllum alal ju bari ak it di dajale di séddale muy yu am solo euh, sëriñ Mbàkke Buso radiallahu anhu dafay wax ne sëriñ bi Tuubaa radiallahu anhu bi mu fiy jógee bàyyiwu fi lu may ci li ma xam ci li ma xam nee na moom bàyyiwu fi lu may ñetti naal benn bi mooy jumaa ji te dox na ci wax ci ba amoon autorisation gannaaw bi wax na ay gàllankoor ya ko ya ko ca dab nee na jumaa ji rek mooy li nga xam ne naal bi nga xam ne ñoroon na ko bam jotoon cee wax ak tubaab yi bañ jox ko ci autorisation ak gannaaw bi la ca xew yëpp nee na ñaar yi nga xam ne nag da cee noppi woon ndax amagutoon occasion pour wax ci bi ci jiitu mooy aj ndax nee na sëñ bi dafa jàpp ne aj faratay jëmm la comme ni nga xamee ne dañ ko war a jooxe comme ni ñu jooxee julli juróom ak weeru koor nee na sëñ bi it waajaloon na ko waajaloon na yóbbal bu mat sëkk mu ànd ak wér-gu-yaram ak it euh, sécurité bu mat sëkk ci yoon wi li tax nag sàkku ko woon ci tubaab yi nee na gannaaw bu ko tubaab yi indee njaareem dañ ne ko woon saa yoo bëggee dem Touba boo ci diisoog ñun ñu bàyyi la nga dem waaye neen saa yu musaan waaj ba bëgga dem Touba rek noonu ñi dañuy daal di gaaw dem ca ka yor gox ba daat koy jaxaseeg moom ne ko bis boo ko bàyyee mu génn de bu soobee yàlla sa musiba lay doon ndax kii saa yu génnee mbooloo mi danañ ko topp yëngu-yëngu bi dana bari bariwaay boo xam ne bu soobee yàlla lu cay lu cay lu cay lu cay nekk musiba yow la koy nekkal waaye moom intérêt rek lay doon. neen looloo tax sëñ bi xam ne kii boo ko tàggoo dem Touba lii la lii la la mën a jural kon nag tàggu ko dem màkkam kenn waxatu ko moo tax euh, màkka gi dem aji gi jafe-jafe yooyu am ci. waaye nag sëñ Mbàkke bu sa wax ne alhamdulilah naal boobu mujj na am ndax gannaaw buñ bi ñu wanee ginnaaw ci saaxir ak njabootam defal nañ ko ko ba tey ñi ngi koy jaf ñi ngi koy defit dem nañ màkk ñoom ñëpp ay yooni yooni yoon at mu joti ñu yóbbu màkk ñu bari loolu kon taxaw na taxawaayu naal bi sëñ bi bëggoon nee na ñaareel bi ci noppi woon mooy daara ju mag joo xam ne Sénégal yëpp dañ fi ñëw di jàng ci xam-xam yi arab yi moo xam la ci aju ci charia ak ya ci ay jumtukaayam nee lii it waajaloon na ko ay téere yoo xam ne ci sëñ Tuubaa rek nga koy gisee waajaloon na ko ay ndaw yoo xam ne it pare woon nañ pour jàngale fànn yi yëpp waajaloon na ay jumtukaay yoo xam ne tamit euh, mën nañ ko dimbali ko ba njàng mi sotti nee na daara ji moo xam day nekk ci Tuubaa wala day nekk ci Jurbel nee na li tax sëñ bi nag ne moom jumaa ji Tuubaa lay nekk ndax Tuubaa la dëkkoon nee na li tax it ngeen gis diggante bi mu nekkee njaareem lépp julli ji wut ndax jumaa waru ko woon ndax dafa nekkoon ci iqaama goo xam ne tey tey buñ ne ko woon mën ngaa dellu sab sab dëkk du fa fanaan nee na daara ji li tax mu noppi ci dafa jàppoon ne daara ji moom bu jumaa ji sottee rek incha allah daf daf ci daal di taxaw daara jooju nag moom la cheikh mamadou muntaqa euh, dekkalaat sëñ bi radiallahu anhu kon loolu mooy ay naanam naan yooyu nag xulafaa yi taxaw yi taxawaay yu am solo lool am ya, ci taxaway yu wuté am ci xam ne dafa jëm ci walu social yo xam dafa jëm ci walu culture ak cenen ak yenen ak yeneen waaye damay tënk rek ci taxaway yu jëm ci walu économie kenn ku ne ma tuddal la ben rek xeyna Cheikh Mamadou mustapha moo ci ji ci ñu xam ne mi ñew da fay fekk ay jafe-jafe yu bari bari bari nek ci position bu yéme yit ndax fekk na fi ay ay ño xam ne ay wajur lañ ci mom ay bayam yu ndaw lañ ño xam ne nañu ko wajuram taxaw yu baye ñoñu xam nga ne amna na daraja joo leen wara jox waye fekk fi magi murid yi nga xam ne it ay seex lañ ak di talibé yu yag yag ño xam ne ba ñu ànd ak sëñ Tuuba jamono mom ci saaxir it banen jafé jafé la waye it fekk fi touba bi nga xam ne moom bu soob yalla lum ñëk lum yëkëti rek mu def ay pexé ba du soti waye fekk fi it ndénkaaneel wajurum li nga xam ne mënut a soti kon ñenti mbir yo xam ne mi ngi ko wër fii la ñuy xamee pas-pasam ak dogoom ak dëggawum ak it ak muritam ak muriteem waaye it ak yitte ju kawe joo xam ne am na ko ci sottal naa li sëñ bi ay ay jëfam bari na lool rëy na waaye bokk na ci gën a gën feeñ ci wàllu économie mooy euh, xëcc bi mu xëccoon raay bi indi ko Touba xam nañ ne raay bi diggante Diourbel ak Touba mi ngi tolloon ci 47 kilomètres Cheikh Maodo Moustapha moo ci dox wax ci ba murid yi xëccal ko seen bopp financé ko waaye liggéey ko mu egsi loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne dañ koo def ngir jumtukaay yi ñu tabaxe jumaa ji ak yi mënta ñàkk mën a jaar ci saxaar gi ba mën a egsi ci biir dëkk bi ñu tegaloon ko ci it ay taxaddiyaat yoo xam ne dañoo jàppoon ne buñ ko buñ ko tegee ci kanamam naal bi du sotti bokk na ca jafe-jafe yañ ko tegaloon dañ ne ko woon ñii di liggéey ci raay bi danañ toll ci juróomi téeméeri nit ñoo xam ne dañoo war a dëgër ñu am doole lañu war a doon te ñépp yaa leen di yaa leen di gàddu waxoon ko ne liggéeykat yi kenn ku ci ne sab añ war naa toll ci 300 gramme ci ceeb bis bu set te yaa koy gàddu waxoon ko it ne ko ñi nga xam ne yoon raay bi boo koy boo koy defar danga ci aw yoon lay jaar du ñàkk léeg nga laal toolub jàmbur ñu ne koy tool boo laal it da nga koy fay boroom tegal ko ci ne liggéey bi lu mu gàtt-gàtt dana mat juróom-ñaari at ne ko it mënta ñàkk tubaab yi yónnee la lu mat fukki technicien ak ñaar ñoo xam ne ñooy jàppale liggéeykat yi ne ko it liggéeykat bu ci ne liggéeykat yi ñoom ñëpp seenu fay lu mu néew néew dana mat deux cent mille francs ci kilomètre bu ñu defar nga gis ne kon ay jëf la ak i wax yoo xam ne yooyu yëpp dañoo bëggoon rek naan wi du sotti waaye Cheikh Amadou Moustapha euh, daaj ci diisoo ak mag ñi ñoom xam nañ ne jumaa ji moom il faut mu sotti ndax sëñ bi bëgg na ko te wax na ko nee nañ ci la Cheikh Ibra Fall euh, joxe woon lu mat euh, juróom-ñaar téeméeri nit suñ mënuma joxe téeméeri nit suñu am sa tuloo nga bu noonu doomi sëñ tuubaay nag àjjale lim bi ci des bu dee ci dund gi ñu dëppoon ak benn société bu ñu wax euh, moleel borom moom moo daan toppatoo lu aju ci wàllum ceeb mi beneen société boo xam ne léegi moo tudd Sonacos ci jamono ji mu daan indi wàllum diw mi bu dee lu jëm ci euh, li borom sant yu gàtt yi tuddee yàpp wala ndawal su ko ñu wax moo duggee jonn moo ko daan toppatoo xëy na da ñàkk séeréer la xëy na euh, ñoom noonu lañ seetli def ay groupe nga gis ne am na quarante cinq personnes ni ki noonu fay gi dañ daan def rek huit franc lañ daan fay liggéeykat bu ne dix franc ñu koy fay ñi nga xam ne ñooy jëwriñ ñi mbooloo yi vingt cinq franc ko daan fay ñi nga xam ne ñooy euh, fuglu liggéey bi ak di ko bàyyi xel Cheikh Modou Moustapha it war nañ ci ak dogu gu mat ndax dañ ko daan wutal lu mel ni am néegu sàkket boo xam ne fu liggéey bi toll rek dañ ko fay sampal bu jàllee ñu seen bi ko sampaat ko fa ca des mu daan recevoir taalibe bu ñu liggéeyee ba sonn léeg ñu ñëw ziare si ko mu jàjj leen jëlloo leen ci sëñ bi bu ko defee seen passif daal di gën a yokk ñu daal demaat ci liggéey noonu la daan noonu la continuer ba ni mu fi jógee radiallahu anhu ba ni eh, ni eh, Cheikh Mamadou Fadil ñëwee moom ñu gis pas-pas bu réy bi mu amoon ci jumaa ji waaye it eh, gën a yokkaat raay bi it gis ngeen ni mu ko yokkee ci diggante gaar bu mag ak gaar bu ndaw ak yëw yooyu yëpp dafay wane ne liggéey bi kon taxawut benn yoon suñu Fàllu ñi ko fekkee ci sunu baay yi dañuy nettali toujours ne jamono yi ñu liggéeyee jumaa ji daawut bëgg a gis borom doole ci diggu yor-yor bu la mosaan gis daanaka boo ko nuyoo du la fay jàpp ne ku am doole rek da ngaa war dem ci liggéey ba loolu ay jëf la ak i pas yoo xam ne dafay wane ne doomi sëriñ bi ak ay leeram seeni mbir ak seeni passeef ak seeni jubluwaay nekkutoon lu may jubluwaayu sëñ bi ak i mbiram ak i bëgg-bëggam rek sëñ Fallou indi fi lu baree baree baree euh, bari xam nañ ne yoon yi liggéey na ci bu baax a baax diggante Canaba ak Touba nga xam ne mi ngi tolloon ci 117 kilomètres diggante Touba ak Daara toll ci 68 kilomètres te xam nañ ne aw yoon dafa bokk ci lii dundal économie ndax saa yoon amee rek dem kaay bi dem dem bi ak dikk bi gën a yomb waaye commerce bi gën a dox waaye saafonte gi ak jokkaloo bi ak weccante ay connaissance ak i ak ak experience gëna gëna a euh mo fi ñëk andi ab centre bo xamni mëna mën nañ bo wax te jamono metti won na kon du jamono yi nga xamni xeyna bo défé say tik tak rek lepp mëna soti sotti euh mo fi andi marché bo ba euh, ci njëlbeen nga xamni par semaine la daan doon juma mu amon ci yum ci daan dàkk bëggoon nit ñi bàyyi woon xel juma ji mëna julli ci nak mom nak jek mom juma ji la daan politique moom jumaa ji rek a ko ñoroon boo boo boo jubloo ci jumaa ji mu jublu la boo jublu ci jumaa ji it mu mu def ak yow mbir xëy na loolu moo ko boole woon ak Senghor ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Amadou Fadel bi mu fi jógee Cheikh euh, Cheikh Abdou Lahad moom it indi fi ay yu ay ay liggéey yu am solo euh, ndax moom it jamono yi mu fi ñëw jamono yi mu toog ci xilaafa gi 68 70 80 boobu jamono dafa metti woon lool ci côté économique ci côté. social ci côté politique ndax dafa dafa dafa dafa dase woon ak daal euh, mettitu jamono waaye teewut am na fi ay liggéey yu baree baree bari yu mu fi indi ci yaatal jumaa jeeg tabaxaat ba euh, armée tabax armée yu bees yeeg ak sumb bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha yëkkati na ko moom moom ko njëkk a yëkkati ci 1987 amoon ci yéene lool gannaaw bi nag ay mbir bibliothèque bi mu fi indi nga xam ne euh, wax nañ ne 1978 euh, ci la ko tabax waajal ko lool indi fi ay tiir yu baree baree bari ba nga xam ne ñeen ñi sax nañ ko euh, méngale ak di ko wàññi ci ay tonn loolu daf lay wat ne liggéey bi rey na lool delloo siwaat nag war may dëkk bi ak sellam euh, ñu gën a bàyyi xel ki fi tëdd gën a bàyyi xel la taxoon mu sos ko waaye gën yaatalaat yoon wi Euh, mayee fi ay pàkk yu baree baree baree baree baree bari loolu lépp ay ay ay jëfi économie la bënn euh, forage yeeg yooyu yëpp luñ mën a wax la ci wàllu économie wax nañ ne defoon na lu toll ci quatre-vingt-dix mille pàkk yoo xam ne bi ñu koy defar financé nañ ci cinq cent millions tabax ci lu tolloog trois mille six cent ci ay kër loolu gën naa yokk population bi gën naa màggal dëkk bi it ba mujj ñuy wax ne sax am na benn étude bu ñu defoon ci région de Diourbel daan ne 86 pour cent yi dëkk Touba yëpp daan 90 pour cent yi nekk ci euh, département Diourbel ñëpp Touba lañu dëkk loolu ci diggante 1976 la amoon ak cinq noonu la ñuy waxee ci ci Sëñ Abdul Xaadir ndax Sëñ Abdul Xaadir moom ak daanaka mën nañ ne ak xilaafam dafa dugg rek ci xilaaf ak Sëñ Abdul Ahad ndax moo ko daan jàppale ci yu baree baree bari moo ko daan taxawu yu baree baree bari motax da naka foo waxee réalisation Cheikh abdou Ahad rek mel na ne ci biir waxale nga réalisation Cheikh euh Cheikh abdou Khadir waaye seigne salim mi nga xam da dund jamono yépp yit xam ko maîtriser ko momit def na ci jëf jo xam kenn xam nu mu toll gis ngeen dëkk yu baree bari yo xam da ko sanc amna na ci yoom du ko teel a sanc lool sax defar fa ay yu baree bari waye xamono mbay xamone jamono xamone xam-xami jamono yi bees yi nga xel ko buñ ko waxee ñun ñëpp ñing ko ñing koy fatali ko mën nañoo jàpp ne référence la boo xam ne référence bu rëy la waaye ni mu dekkalaat yoon wi boole leen ci ay mbooloo ci ay daayira yooyu yëpp moom it lu mat a bàyyi xel la daayira yi nga xam ne moo ko sosoon bari na ci yoo xam ne tey ci yoonu ñoom ñoo koy taxawee euh, ak jumaa ji jëf yi mu ci jëf yëpp waaye bi ñëwee ba ci dawrul ahfaad nag man ni ma koy tuddee mooy rolu sët yi te mooy ñoom Cheikh Abdou sama yi mën nañ cee lim ku mel ne Cheikh moom Lamine Baara yàlla na ko yàlla dolli ngërëm Cheikh Sidiène Muxtaar waaye suñ muntaxaa suñu kilifa gu bax ki suñu borom sàmm ko ñoom ñëpp booy xool danaka na li mag ñi lañuy lañuy sof ci lañuy sof man lañ fi fekkon rek ci lañuy sof diko gëna baxal diko gëna yéssal diko gëna ñongal diko gëna sam danaka ko ci xolit man nga ko gisal mo am ay adwar ijtimaaya ya, ay role social ak ay yefi diplomatie Cheikh moom Lamine Bara gis ngeen ba mu demee palais bi ak lool ni meuna a jural yoon yi ci ak ciwte waye àdduna bi yeb bayiko xel président recevoir la ci paleem loolu dafa bari lu muy def ci wàllu dafa ba dana bari it lu mën a yombal ci wàllu économie ci ëllëg boo ko bëggee Cheikh Sidi El Mokhtar waaw ñu noot dafa julli fa julli fa mu jiite fa loolu jàpp nañ ne yoon yoonu murit man boog ci li ma xam moom moo ko njëkk def ah, Cheikh Sidi El Mokhtar moom gis ngeen ni def ci jumaa ji ñaari sorol yi mu yokk loolu nga xam dafay gën a taaral dëkk bi di ko gën a fésal nga xam ne ñàkk nañ ci lu mat 7 milliards waaye it euh, jumaay ndakaaru jee ci masaalikul jinaan nga xam ne tey ñun ñëpp dañ koy sagoo moom it mooy ki ko njëkk a ki ko ki ko njëkk a euh, taxawal boo ñëwee ci Cheikh moom Mountakha nag moom ay jëfam moom ba tey mi ngi mi mi ngi wéy di jëf ñu ñaan suñu borom muy wéy di jëf gis nañ ni ci jamonoy jamonoy corona moom moo njëkk a yëkkati 200 millions francs jàppale ko état pour mu xeex corona waaye njëkk moo njëkk a sensibiliser nit ñëpp wax leen ñu bàyyi xel tegtale docteur yi ak it euh, jàngat yi nga xam ne moom lañ ci teg ba euh, feebar bi wala boog tawat gi du yokk waaye noonu la jëlee ay ay ay ay ay charge ci faj ak taxaw ñi nga xam ne ñoo ñoo woon tawat jooju gis nañ ne moo njëkk a génne téeméeri million jox ko ñi nga xam ne ñoo woon ci marché ocas te booba état bi bi muy génne moom 50 millions rek la génne kon foofu it maanaam lu mot la moo njëkk a joxe téeméeri millions it ci jumaay Tiwaawan jee ñuy defar waaw loolu it du jar commentaire waaye it naalam bii nga xam ne gis ngeen milliards yu baree bari yi muy laaj ak yeneen i jëf yu baree bari yoo xam ne xulafaa yi def nañ ko bu baax a baax yoonu murid nag ci tënk am na ay taxawaay yu bari ci wàllu mbay am na taxawaay yu bari yow ci wàllu sinaa mooy liggéeyub loxo waaye am na taxawaay yu baree bari ci wàllu jàppalante ak dimbalante ndax sëñ bi moo ko moo moo ko tegoon ci wàllu googu moo ko moo ko joxoon objectif boobu mooy jàppalante jàppalante gi mooy takaamur rek gis ngeen jamono yi fii eh, sëñ bi demee ci eh, tukkib géej gi adwaar yi noonu la seetlikoo woon ñii ñu ngay jàngale alxuraan ñii ñu ngay jàngale xam-xam ñii ñu ngi ci wàllu mbay ma moo tax ngay gis Cheikh Abdourahmane loo gis nga Cheikh Ibra yi ci li mu féete woon waaye gis nga Cheikh Ibra Fall ni mu daan dem di wutee di indi di yor njaboot gi noonu ngay gisee ma Mandoumbe moom it ñim nekki woon jëwriñ ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci daari tarbiya yi ñoom ñëpp bu ñu indee nag se se Cheikh Ibra Faty daal di saytu daal di doxal loolu kon takkaamul la waaye it ni mu leen tàggati woon ci li ñu tuddee ab tamwilu tasharuki mooy lépp loo xam ne dañ ko bokk mu nekk objectif boo xam ne mbooloo mépp ko bokk ñun ñëpp ñu koy bokk di ko financé waaw loolu ngay gis ci jumaay Njaaréem loolu ngay gis ci jumaay Touba waaye loolu nga gis it ca ba ñuy wuti xeeri ndokk ya loolu ngay gis it ci bi ñuy indiwaat raay bi waaye loolu ngay gis it ci biñ bi suñ muntaxaa naalaatee naalam wi dangay gis ne kon tambil tashaaru ki moom it xeetu système financement économique la boo xam ne murid gi adopté nañ ko bu baax a baax a baax waaye kenn mënut a wax économie bi murid gi def te laaloo gis nañ ne Touba tey bokk na ci dëkk yi gën a fés yi gën a commercial daanaka booy xool dëkk bi sax boo xamul dëgg-dëgg wàllu roo gi da ngay jàpp ne dëkku commerce la ndax ku nee fi ñëw ku ne fii rom Sénégal daanaka tey dëkk yu mag yëpp foo ciy dem léegi tubaab mooy Carrefour bi nga xam ne mënoo fee ñàkk rom loolu it di liggéeyub sëñ bi di liggéeyub njabootam gi nga xam ne ñoom la fi ñoom la fi bàyyoon bu ñu xool suñu réalité bi gis na murid gi ñu ngi réaliser lu baree bari ci wàllu culture am nañ seen culture bopp ci léegi sax daanaka am nañ seen i weer yi bopp weer yu rëy yi ñu xewal am nañ am am nañ seen lépp ci bopp am nañ seen xeetu ñawinu bopp boo demee ba ca waañ wa am nañ seen xeeti xeeti toggiinu bopp waaw am nañ seen seen seen léppi bopp waaw loolu euh, ngay gis <laughs> ngay gis euh, waaw loolu loolu xeetu kii la ci wàllu xam-xam tamit gis nañ sawra bi ci am euh, ci wàllu liggéey ci wàllu créer créer ay mbir gis nga ay jaafoo rek ay xeeti mbaxana yooyu yëpp ci wàllu ñaw waaye tamit noonu ngay demee ci wàllu immigration wàllu tukki moom gis nañu ni mu apporté murid yi bari na ci ay ci ay jamono yu yàggut ci ginnaaw daanaka kër gu rafet goo mosaan gis da nga jàpp ni ab moodu moodu murid moo ko moom ci Sénégal waxuma nag ci Touba waaye ci Sénégal loolu it ñu daan def ay mobilisation daan siyaare si xalifa yi di jàppale seen njaboot loolu lu mat di bàyyi xel waaye boo ñëwee ci daayira yi mën ngaa gis daayira yoo xam ne ci xam-xam rek la yëngu mel ni daayira taraw du royaxin ñoom dañuy yëngu ci xam-xam di yëngu ci social mu xadamatul xidma ñoo xam ne ci wàllu dajale alal ak di ko dugal fu ñu xam Tuubaa kanam waaye ak ñoo xam ne dañuy yëngu nag ci defar ruux ak delloo nit ñi ci xasida yeeg duruus mi loolu mën nga cee tudd lu mel ne euh, daayira xisbu tarqiya waaye mën nga cee tudd lu mel ne li ñoom suñu kilifa gii di def di sëriñ xam Xamsa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye foofu ngay ñëwaate ci wàllu def te yàlla tax def lu baax mën nañ cee tudd aw xaaf yi li ci Cheikh Mamadou Mourtada def yi rëy na lool bari na lool waaye tamit mën nga ci tudd yenn daare yi nga xam ne murid yi dañ ko taxawal ngir jàppalante ba xam-xam di yaatu mu ngi tudd daare soxna jaar ja nekk ca Poroxaan mu ngi ci tudd kër jirim yi nga xam ne mi ngi fii ci Touba ak yeneen barab ak yeneen i barab waaye tamit noonu ngay ñëwee it euh, ci bu ñu jëmee ci kanam incha allah li mën a apporter murid gi yépp daal ay kii la ay mbir la yoo xam ne bu ñu ko dajalee jangat ko yaakaar na mën nañ ci am ay resultat yo xamne inshallah incha allah euh, danañ ci gëna mëna jangat deug deug yi señ bi fim fekkon jamono ak fim ko yobbu ak fim tollu ni ak lan lañu ci fan lañu mëna jëmat kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéglu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jëf sëriñ bi sant nañ bu baax ci mot ligé lër nañ yalla na yok xam-xam bi kon ñu daal di aggal rek motri li ci dess ak euh, sëriñ Fallou Rafa yi mu duggal ñu tuuti rek ci lu aju ci euh, xarale yu bees yi rawatina li ñuy wax euh, réseaux sociaux yi ak li ciy xew euh, mu waxal ñu ci tuuti rek daal en tant que murit ban taxawaay lañ ci war a am ak nan lañ ko war a jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne day doon bu ijaabi te bañu doon bu bi bu noppé nak ñu jox Abdul Khadir lo mu def ben commentaire wu ndaw rek ci lu tënku ñu doog a tëj ak euh, kilifa gi bu fekke amna cadeau yum ci jallal inshallah allah bismillah. wa jërëjëf euh, sëñ Xaamidun hamidun xamna waxtan bi mom amna mana lol don nañ bëgg di wéy di déglu sëñ Abdul Khadir ci nimi nimi yaatalé ci taxawayu mouride yi lol sax dañuy may ñu dugg ci tom bi ñu. sëriñ bi di waxtaan loon yi faaw ñu taxaw nag xam ñun ñooy ñan ñun ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ taalibe Sëriñ Tuubaa mooy ab murit murit mooy dëgg-dëgg jullit dëgg-dëgg jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk nañu ko tënkal nañu ko ci ab xadiis mooy bàyyi def lu ko amulul njariñ min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani li ma bëgg a wax foofu mooy ma joxawaat beneen xadis yonent bi sa alayhi wa sallam nee nañu lépp lu baax ab jullit moo ko moom fu mu ko fekk na ko jël ñun murit nag nga xam ne ay taalibe Sëriñ Tuuba lañ Sëriñ dañoo jaayante ak moom ñu taxaw ci jaayante mooy lan mooy dangaa joxe sa kàddu ak sa ruux ak lépp ne Serigne Touba nga ko jox boo ko joxee Serigne Touba nag faaw nga xool sa waxtu wii lu la ci Serigne Touba digal nga def ko ci ak lu mu la wax nga bàyyi ko ci. am na benn téere Masaalikul Jinaan sëñ bi ubbi na ci ab buntu ji leeral naka la ñuy dundalee ay waxtu maanaam buntu bu lëmm boo xam ne la buntu ba di wax yépp naka la ñuy dundalee ay waxtu la ci naafila ci jàng alxuraan ak yu mel noonu murit mooy koo xam ne bëgg-bëggam yàlla kese la yàlla dafa bëgg-bëgg yàlla nag mooy doxin woo xam ne intensité bi amul fu mu yam mooy suñu boroom di ca dem am noppalu te loolu am nañ ci royukaay bu mat sëkk muy Cheikhul Khadim nga xam ne ci seconde yim njëkk def ci àdduna ba ci seconde yim mujjee def ci àdduna amul benn noyyi bu mu jéemut a wut ngërëmu yàlla benn noyyi bu mu jéemut wut ngërëmu yàlla kon ku ne kon war nga xoolaat sa waxtu lañ ciy def bu baax a baax waxtu yi nag vingt quatre heures moo amoon bi yàlla sàkkee àdduna ba léegi min wi lay bis bi di tàmbali di jeex vingt trois heures cinquante neuf amul euh, altine mooy tàmbali mooy am talaata di am àllarba di am ba léegi ba fi mu ne nii may waxee ngeen kon lay amut ci jamono daa soppeeku far sax jamono léegi la gën a yomb léegi am nañ ay làmp am ay télévision am ay téléphone am ay oto kon dundal waxtu wi gën naa yomb bu ñëwee ci réseaux sociaux yi nag ñun ñëpp xam nañ ne am na njariñ daanaka njariñ li bu ñu ko doon lim du ñu ci jeexal ñi ngi jokkoo ak suñuy mbokk ak fu ñu mën nekk àdduna ñi ngi jàllale njàngaleem si reex Cheikhul Xadim ñi ngi jokk ak mbokk ci biir réseaux sociaux yi ñu ngi xamante ba noppi xamante ba jur njariñ ci wàll yépp ci réseaux sociaux yi ñi ngi jàng ay xam-xam ci réseaux sociaux yi ñu ngi topp histoire Cheikhul Khadim tàmbale ba jeex ci réseaux sociaux yi ñi ngi jamono yi ñi ngi mën a sans topp naafila gi ñi naafila màggal jumaay Tuubaa jumaay Masaalikul Jinaan xasida yi sëñ Muntaxa di def ak wi yi def ko si taxawaay yépp ci réseaux sociaux yi lañ ko mën a jotee kon njariñ yi du jeex waaye nag lor yi nag dafa bari bari goo xam ne jar na ñun ñëpp ñu jug taxaw ngir mu jóge ci wax naa ne ñun di ay murit di taalibe Cheikhul Khadim dañoo am responsabilité sàmm suñu waxtu seconde bu nekk ñu xool ci lan lañ ko def ci jamono yi ñu nekk nag dafa am loo xam ne réseaux sociaux da ko indi ci ñun mooy dugg ci loo xam ne suñu yoon nekku ci am na ñoo xam ne. suñu xëyee suba ba ngoon li ñu wooyee kaa mooy seen liggéey fii la yëf yi jaar génn fii génnaat fii jaaraat fii génn fii ba subawaat ñu xëyaat nekkaat ci jàpp nañ ne sax waruñoo nelaw guddi fi mu ne nii koo ne 23h euh, koo woo téléphone 23h fekk mu tëdd ab kaw kaw nga koy teg faaw dañoo war a dem ba 6h du matin ñu julli fajar ñemewuñoo ñàkk julli fajar sax door a tëb door dem tëri ba kañ léegi-léeg nga gis koo xam ne. ci réseaux sociaux sociaux yi la nekk euh, moom li ab liggéeyam mooy lépp loo xam ne gis na ko ci lu baax fas yéene wu ko tasaare waaye lu lu yàqu rek lay tasaare te mbokk yi nañ xam ne amul benn jéego bu ab jullit di jéego te yàlla du ko laaj yomal xiyaam mos naa mos naa wax ne commentaire ak j'aime sax yàlla suñu borom danañ ko topp kon. war nañoo xoolaat bu baax li ñuy def bu ñëwee nag ci naka lañ mën a taxawee en tant que ay murit mooy waxtaanee nañ fi xam-xam waxtaanee nañ fi économie waxtaanee nañ fi société nañ xam ne nit ku nekk jikko jëm amee moom lay yóbbu ci réseaux sociaux yi maanaam man su ma yoree sama téléphone di manipuler sama jikko lay doxee ci téléphone bi keneen jikkoom lay doxee ci téléphone bi wala ci ordinateur bi kon fi ñu war a njëkk a jëmbat. mooy yarkat yi yaraat nit ñi ci wan doxin la ñuy dox ci penc mi penc bi nag far sax penc mii nga xam ne pencum biti la pencum réseaux sociaux moo ko gën a yaatu faaw kon ab murit xam ne waxtoom dafa cher faaw ab murit xam ne léppam Sëriñ Tuubaa la ko war a jox fan lañ mën a teg man gis naa sama bët moo may ku nekk ci ak julli di taaya wane di di di selfie taaya di selfie koo xam ne sëriñ bu mu mën a gis ak mu mu ko mën a fekkee sañ na koo jël photo wala mu jël ko filmer ko koo xam ne nit ku mu séqal ay wax sañ naa jël loolu mu séq ak moom yónnee ko ñeneen nit koo xam ne lépp lu muy def suba ba ngoon am na ñoo xam ne jëru nga leen di xam waaye mën nga xam bu ñu yeewoo ba bu ñu tëree nan la ñuy def lan la ñuy def fu ñu jëm wane ko ci image loolu nag la muy jur mooy loo xam ne moo gën a dangereux ci kuy dund tasawuf mooy ñaar. mooy ngistal lay lay jur ak yëg say jëf yu baax yi ngay def te loolu mooy li gën a bon ci kuy def lu baax kuy def lu baax ngistal ak yëg na ni def lu baax loolu réseaux sociaux du koy jëmbat ci xolu doomu aadama ndax boo yoree sa nooru daara ne wala nga yor sa kaamil aw ànd jàng dugal sa macha allah fasaale ñu la sëriñ bi euh, yéen ci lu baax dangam nangam loolu jeexit gi muy def ci sa xel sa xol mooy tax jëf ji. boron jang xey suba di jang fukki noru daare ni ñaat téméré isib du la amal njariñ ndax yow yaangi yek ne yaangi def lu bax ta loolu dafa baxul yaangi ngistal ta loolu day yaq jëf motax kon ñun ñëpp ñun dañuy wërdu ma xoos dañuy jang alquran dañuy jang xasida waye taxut mu fenn ci jikko yi kon ci defeen wi la manam ñun normalement xasida nim toll niki serigne touba sonné ci ab yar nit julli ci bi sax lay wax bala may wax ci julli ci bi rek li muy def ci doomu aadama rawatina julli ci yonent bi goo xam ne sëñ Tuubaa moo ko tënk moo ko tëgg nga koy jàng waaye yow defee gudd jeexit ci saw rox war ngaa xam ne kon ci jëf ji la te loolu réseaux sociaux dafay da koy jëmbat ci ñun mooy ngistal bokk na ci li muy jëmbat ci ñun tamit mooy ñàkk respecté suñu kilifa te nag wax dëgg loolu mooy ak murit nag ak murit moom ab sëriñam wala kilifa moom eh, da ko war teg foo xam ne ëpp na mu koy fi ci jotaay da ngay gis koo xam ne. bu sëñ bi di léeg nga fekk koo xam ne ni mu image bi mu jëlee sëñ bi doo xam lu ko ci lu ko ci war a xiir léeg-léeg mu fekk ko muy naan léeg-léeg mu fekk ko muy xewlu te loolu dafa am jeexit am na lu ñuy wax lu ñoom si Abdou Khadir bu soo waa marketing di wax matraquage publicitaire maanaam nit ki lu mu tàmm di gis joxe gi jox daye bi ñu jox suñu kilifa yi am na gisin wuñu leen tàmm di gis gisin wuñu leen tàmm di gis bu yàggee dootuñu leen jox loola te seytaane moom maanaam cawarte gi am dafa dafa kiimaane kenn xamul lu muy naan moom lan lay jëfandikoo kenn xamu ko maanaam lu ne la koy du xeebu benn paso bu mën a yàqalee nit ki xeebu ko kon réseaux sociaux jëmbat na ci ñun yàpp suñuy kilifa ci wàll yëpp mu gën a jëmbat ci ñun li gën a doy waar nag mooy tasaare suñ tubaa ci mbedd mi maanaam koo xam ne suñ tubaa la wax ne moom la moom la moom la yaakaar nit taxaw di wax ci Sëriñ Tuubaa yow ci biir wax Sëriñ Tuubaa yi nga tàmbali di saaga ci koo xam ne Sëriñ Tuubaa lay wax di saaga di weddi euh, diw sàngam tuddul sama maam diw sàngam li mu wax ci sama maam te ana Sëriñ Tuubaa bu boobaa réseaux sociaux yi jur na ci maanaam jëmbat na ci ñun xeet suñu bopp ci suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa wala na cee wala na taxawaat bu baax a baax fi may daanelee mooy am na loo xam ne tàmm nañ ko bu baax a baax ñun ñëpp ndekete murid yi moom nelawatuñ guddi waaye ñàkk nelaw guddi gi du naafi la du ñun dañuy nekk ci whatsapp wala fenen, di waxante ay message ba fa jar ñun ñëpp xam nañu ko nekkuñu ci akkanan, ñu war nekk ñun ñëpp man ak keneen ak ak dañuy waxtaan di waxtaan di waxtaan ba fajar jot da ngay yàkkamte sax julli fajar gaaw ana am murit ci taxaw ay guddi ana am la ci jàng alxuraan ana am moo la ci jàng xasida réseaux sociaux yi jëlee nañ ñu ci jële nañ ñu tamit ci ñun ndekete dañoo bëgg sëñ Tuubaa gëm sëñ Tuubaa waaye kóolute ci suñ Tuubaa ak suñ diggante ak suñ Tuubaa dafa des dafa am lu am solo ci gëm-gëm gëm-gëm ci am xel lay nekk waaye ngir mu amal njariñ nit ki ko gëm ci ab xol la koy def gis nga ñun ñëpp gëm nañ yàlla julit ñëpp gëm nañ yàlla gëm yonent bi bu fekkoon ñun suñu gëm yàlla ak suñu gëm yonent bi mi ci suñu xol ab julit du jaw du wax lu dëgg du sàcc ndax xol mooy jëf mooy tax nit ki di jëf moo tax bu fekkoon gëm ak bëgg suñu tubaa gi gi ñuy wax wàcc nañ ko ba ci suñu xel suñu xol yii duñ am jotug def dara lu weesu ngërëmu suñu tubaa kon nañ xam ne réseaux sociaux yii ñu yor dañ ko yor ngir jëfandikoo ko man jàpp naa ne ba fa Sëñ Tuubaa nekkoon du ko tere waaye nag dina wax naka lañ cay demee moo tax kon wax naa sànq ne ñun suñuy jikko lañuy ñuy yóbbu ci suñuy téléphone kon ci yar bi lañu war a euh, jëmbataat yitte yi xam ñun lan lañu war a yittewoo ak lan lañu warte a yittewoo ndax dañoo war a yittewoo nit ñi dañu gis ndax dañoo war a yittewoo ngistal ndax dañoo war a yittewoo euh, gis yëg suñuy jëf ndax dañoo war a yittewoo xool ñeneen ñi ki dañuy def nañ ku nekk mën na cee tonk xam ne déedéet li ñu war a yittewoo mooy Serigne Touba te Serigne Touba ku fonkoon waxtu la te kon bu ñu bàyyiwul doxin wi ñuy dox ak tayel dana dana dugg ci ñun ngistal dana sax dàkk ci ñun euh, ak naw jëf dana dana dana dana dana sax ci ñun kon suñ Hamidun lees ci mën a wax bari na waaye aw naqar lees ci am ci doxin wi ñuy dox ci réseaux sociaux ñun ay murit ci sànq gi ñuy sànq suñu waxtu wax naa ko amatuñu lay 24 heures 24 heures la maanaam man gis naa ay groupe yoo xam ne li ñu tuddee seen bopp mooy 100 pour cent topp kaa noonu la tuddee seen bopp maanaam ñoom li buñ xëyee ba suur ba ngoon suñ diw sangam diw sangam diw sàngam diw sàngam def na nangam yaa ngi koy jox tuyaaba kooku sax léeg-léeg nga ñee ko ndax dañ koy jox tuyaaba sànq sa jaamu yàlla te yàlla mooy koo xam ne lu waaye ab jaam fii da ko ko fay. buñ demee ba yomal xiyam nit da koy amee la ay ay àq ñuy jël sa yu baax di ko ko jox baax di ko ko jox ba amatoo yu baax moom ñuy jël yu bonam di ko di la ko jox kon rëcc amut ginnaaw rëcc amut nag faw ñu moytundi ko yu mel noonu te buntub sax ci réseaux sociaux day ubbi buntub nekk ci nit ñi nekk ci nit ñi am jot lool lool kon daal bu ñu gisee ne Sëñ Tuubaa ubbi na buntu naka la ñuy dundee la waxtu te ay naafe la la cay wax ay woor ay jàng alxaan nañ wat ci yooyu waaye loolu teewuñu jëfandikoo yëf yi ndax amna ñariñ bu baaxa baax comme ni nga ko won sank ñi ngi sant bu baaxa wax di gërëm tay jéggalu ci kaddu yu lérul yi di am bëcc bu baaxa baax ci xéetu jotta yu melni di ci and ak sunu mam, man nak mam lay wax ndax wayjur wi du ma ah, mo kon ma ngi jëfandikoo mam ji euh, sëñ bi ni nga do wax ci euh, togg yi man ma ñëw fii fi lo xamné xaw ma ngëmm la xaw ma fii dama laa ko gisee wax dëgg yàlla xam naa bu watuwul ay bésu bésu la xamanteel rek moo tax ñu koy kii euh, ñu ngi sant di gërëm di euh, ñaan suñu borom jotaay yu mel nii mu ñuy amal njariñ saa su nekk te koy ñaan di ko ñaan di ko yalwaan ñu sax dàkk ci bëgg ak nekk taalibi Cheikhul Khadim salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Fall waxtaan bi am na solo lool li ngeen doon wax ci wàllu réseaux sociaux yi muy lu doy waar yi ciy xew donte am na ay jaabiyaat mais salbiyaat yi bëri na lool surtout li nga ci tudd léegi nag muy wàllu sànq waxtu mi tax ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa moom eh, bokk na ci li mu doon jàngale mooy fonk waxtu daawut may kenn ngay am waxtu wooy nekkee ci loo wërta nekk dañuy wax naan ba mu fii ne moom léegi la nit ñi tala nelaw waaye ba mu fii nekk moom foo toll yaa ngi def dara cent pour cent topp kaa nag wax dëgg yàlla ku ci nekk moom li muy fii mooy yow nekkoo ci leneen nekkoo ci dara lu baax ndax boo fekkee cent pour cent topp kaa nga ne moom mooy ça veut vingt quatre heures vingt quatre dangay ngay topp kaa kon mooy léegi yow duutoo to julli ngir topp kaa duutoo naafila ngir topp kaa duutoo jàng alxuraan ngir topp kaa waxantuma la ak jàng xasida ndax topp kaa mi moo lay sonal ba doo tal yooyu yépp kon loolu lu mat a bàyyi xel la mais am na beneen mooy eh, war nañu moytu it ñun murit yi di di di di eh, kilifa keneen te bari na lu muy am ci jumtukaay yooyu nit ki nag boo ko xeebalee kam am wala nga ŋàññal ko kam am lam cay teg mooy day fayu wala tasubbu alladina yadduuna min dunillahi fa yasubbu llaha adduwan bi gayri ilm loolu dafa leer kon nañuy moytu it nag di eh, wax keneen ci jumtukaay yi ak fudul jumtukaay yi sax nañ mais dafa gën a fese foofu rek mooy waral commentaire yu doy waar yi ngay gis léeg-léeg lu mat a la am na beneen bu ma sëñ bi junj léegi rek euh, muy lu am am solo euh, léegi la ma ko dee muy carte day am ci réseaux sociaux yi am lu ñuy wax naar bi euh, waaw xam ma nu tudd en tout cas wax dëgg yàlla dégg naa ñu koy wax mais comme que yënguwuma ci moom moo tax tur sax xam ma ko mais naar bi daal siiwee na baat boobu. moy genre carte bo xam dañ koy def ci téléphone yi di ci gagner xaalis bu bare bëri loolu nag carte la carte mom l'islam dako haramal innamal khamru wal maisiru wal ansaabu wal azlaamu rijzun min amali shaytaani fajtanibuhu loolu la alxuraan wax kon carte moom façon bu man doon dafa araam lañ cay jële du kas bu xalaal lewut ndax bëgg lu yomb rek moo waral teyit euh, yàlla da ko lënkaleeg la ñuy wax sàngara ci ak araam kon lu mat a bàyyi xel la euh, ñu ci ñu koy moytu bu baax a baax euh, kon ñu ngi sant bu baax a baax sëñ fàllu ci wax ji am na solo di sant sëñ Galas di sant sëñ Abdou Khadir Bousso ñu doon wax ci wàllu économie kii doon wax ci wàllu xam-xam lu ci nekk rek nag buñ ko toppoon yaakaar naa fi lañuy fanaan ndax mën nga topp càllala ga yittewoo ga ca sëñ Touba ba fi mu ne mën ngay siite ay nit ci wàllu xam-xam loolu moo indi woon sëñ Abibu ñibbi si Touba xam-xam moo waraloon ñu teg sëñ Alaaji Mbàkke Jaxate ci jumaa ji xam-xam moo waraloon daara yi sëñ Sohaybu moo waral moo waral sëñ Mouhamad Dem moo waral la ca nàngam bari na loo xam mën nañ ko cee wax bu ñëwoon ci économie it la mag ñi ne woon ci wàllu googu di ko suuxat di jëmbat ngir murid di mën a am seen autonomie ci wàllu économie financièrement duñ soxlaal kenn dara loola moo rogalaat ba tey jii mën nañ fee tudd ay nit yu bari bari yoo xam ne eh, ñi ngi yëngu ci wàllu économie te sax xëy na du dañoo jàng domaine boobu wala ñu doon ay ñu jàng weneen làkk wala jaare ko feneen mais ay niti daara lañ yoo xam ne xam nañ leen ci wàllu googu ñu ciy yëngu ba def ci ay taxawaay yoo xam ne ñi ngi jëriñ yoonu murit ay njëriñ yu am am solo mën nañ ci tudd lenn ci taalibe yu mel ne eh, Makhtar Sey ñu ngi ma koy eh, junj léegi yaakaar naa sax moo defar la fraîche bi Eh, ak ku mel ne boobu ñuy wax sëñ buub ak ku mel ne Cheikh bu dee kilifa yi sax mën nañ cee tudd sëñ Ahmad yi boroom aynu suñ Ahmad Badawi suñ sëriñ bu baax boobu yi ak ñeneen ñu mel ne ñoom misaal la rek misaal la rek waaye yaakaar naa gis nañ seeni taxawaay ci yoonu murit te li leen ko may mooy eh, taxawaay yu ñu am yu ñu am ci wàllu économie ci Sénégal muy yu am am solo yu mat a bàyyi xel eh, kon xam naa ne daal dañuy jox Abdou Khadir rek mu wax tuuti rek ab contribution bu gàtt rek ñu daal di tëj nag ak sëñ bi eh, mu sànni ci ay kàddu ngir jotaay bi mu ngi bëgg a yàgg te xaw nañ ko ñeewante ci toogaay bu doon ñun moom ay gone lañ mën nañ fee mën nañ fee fanaan waxtaan ba suba te duñu am benn benn jafe-jafe waaye nag wax dëgg yàlla xaw nañ ko yërëm ci jotaay yàggaay beeg ngelaw leeg yooyu bisimilah sëñ bi الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما ونوير الجنان سدد اللسان يا من له شكري وذكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير الأخر بأرشدا وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Eh, gannaaw ba ñuy santee boroom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant ak a gërëm ak a dolli yeesal suñu njëbal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu def ñu ay dëgg-dëgg jullit yu mu nangul seeni jullit def ñu ay dëgg-dëgg taalibe Serigne Touba yu Serigne Touba nangul seen ak taalibe kon bi. ñoo ngi leen nuyu bu baax te di la sant ci yittewoo gi xam-xam te ñu xam ne loolu lépp liñ kiy sonn lépp lenn rek moo tax nga koy def muy bëgg a liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba moomu nga ciy dàkk nag yàlla na la fa fekk ak fayam yàlla nga ci am gërëmam ci barkeb sëriñ bi damay tënk rek xam naa ci waxtaan wi ci fi mu commencé di Serigne Khadim Bamba ci wàllu xam-xam. ñi mu yitteele woon sëriñ bi ak ni mu ci doxee a jaar ci sëriñ Abdul Qadir Bousso mu ñëw ci lu am solo ci wàllu économie ba jaar ci sëñ bi nga xam ne mooy sëriñ Galas moom it mu wax ji wax ju am solo ci wàllu social ñett yooyu nag boo ko xoolee li ñu ci wax lépp li ma ci jàngat rek mooy sëriñ bi dafa am benn modèle dafa am benn nit kum bëgg tabax dafa am tamit benn société bu mu bëgg a tabax nit ba mu ñëwee jamono ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi loolu mooy li koy dugal ci diine mu nekk ab jullit waaye sëñ bi dafa bëgg a wax ne loolu rekk doyut dafa am yeneen ñu koy accompagner ndax yàlla daf ko fa wàcce ngir mu amal njariñ suuf sëñ bi nag ni mu ni ni ñu waxee nii lépp da ngay gis ne dafa am benn modèle personne bu mu bëgg defar muy nit koo xam ne ginnaaw loolu lépp daf koy duy xam-xam moo xam xam-xamu diine ba mu dañ ak réer te xam ni ñuy jaamoo yàlla waaye xam-xam bu mu mën a jariñoo ci kaw suuf wala xam-xam bu mu mën a jariñe suuf ginnaaw bu ko diwee loolu ba pare mu defal ko jom ndax sëriñ bi bu dee wàllu jom moom def cee dox doxin wu wér woo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko am jom la te daf ñu coo te daf ñu ko wan jom gi nag mooy takku nangoo sàkk lu lew jom jooju sëriñ bi nit ki di sukkandiku ci boppam di takku sàkk lu lew ngir fu bu bu bëggee dara man koo fajal boppam suñ Tuubaa sëñ Tuubaa ni mu fi jàngale loolu lépp moo war a réalisation yi si ñaan yi si ñaan yi si ñaan bu xaadir mi doon wax bi ñuy tabax jumaa njaareem soxlawuñ kenn ngir mu ñëw tabaxal ñu ko ñun ñoo ko tabax ci suñu biir maanaam murid yi ñoo ko defal seen bopp bi ñuy xëcc ci raay bi soxlawuñ kenn murid yee ko defal seen bopp noonu nga koy toppe noonu nga ciy toppe ba ci université bi ñaata milliards la te murid yi ñoo ko liggéeyal seen bopp soxlawuñ ci kenn loolu yi dafa dem ba murit yépp dañoo am seen gëm-gëmu bopp loolu moom ñëpp a ko gëm dañoo gëm ne Tuubaa gi luñ fiy def murit yi man nañ ko def loolu ñëpp a ko gëmandoo te li tax ñu gëmandoo ko mooy dox gi ñu ci dox ba ñu ko sëñ bi digalee ba tey ak résultat yi ñu jox kon da gis ne sëriñ bi wàllu jom googu it dañu koo jàngal moom bi mu nekkee ci géej gi dafa bind ne katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasara abidil maai wa tiini yaddi li mughnin karimin nafiin samadin la li darahima taati min suleytini dafa wax ne du ma tàllal sama loxo mukk jëme ko ci nasaraan bi di ko laaj dara wala mooy sàkku ci moom dara man sama loxo bi yàlla laa koy tàllal waaye du ko tàllal ay dërëm yu may jële ci ay ci ay euh, ci ay tubaab kon jom jooju moo ko jëmbat ci murit yi waaye bi toppaat tamit mooy murit boo xam ne ginnaaw ba mu amee jom dañ koy defar ci ay jukko ba mën a jaxasoog société bi di leen jariñ den man leena jariñ te loolu limi jaxaso nit ñepp day fekk mu amé al adabul hasana. moy ay teggene yu rafet te ay teggene serigne bi def ci wax ne nit ki de lu muy lu lum sori sori sori bis bu bis bu ko sakko ak ak ak ay teggin dana ca jot waye lu muy lu lum ko jaga jaga. jege bis bu ko sakko ak ay ñak teggin du ci massa jot kon loolu loolu le serigne touba def ci mouride yi moo taxit ay teggin moom daanaka teggin ci wax ci lépp rek comme ni ko sëñ bu Khadir junjee dafa mel ne loolu moom lu ñu ràññee ci murid la ginnaaw loolu tamit mu dind ci moom ak complexe mooy mën ngaa jëfandikoo ak ñëpp mën ngaa jëflanteeg ñëpp mën ngaa jëflanteeg ab tubaab mën ngaa jëflanteeg ab naar mën ngaa jëflanteeg ku ne waaye fii nga bàyyi moom na ko na nga ko téye bu dëgër te dara bu mu tax nga ba ko mooy. boo jëflanteek ab tubaab bu mu yàgg yàgg yàgg ba mu wàll la tubaabe ndax yow sax mbawal mbawalee mënoo koo wàll kon comme que mënoo koo wàll ba mu téye ko yow téye li nga yor waaw boo boo jëflanteeg ab akub naar bu mu bu mu yàgg yàgg ba mu wàll la ak naare waaw moom moom na nga téye li nga yor. te ku na xam ne côté boobu sëñ bi daf cee daf cee daf cee daf cee liggéey lu bari ndax moom rek moo ko njëkk a def moom rek moo ko njëkk def loolu moom moom dafa garder sénégalais bi mu doon doon waaye dafa garder tamit bawal bawal gi daf koo téye dafoo garder waaye même ci murit gi tamit da gis ci biir murit gi dañu maam dañoo garder sax seen murit gi maam dañoo garder seen murit gi li nga xam ne moom la murit gi sol moom la ñuy sol ni ñuy waxee moom la ñuy waxee ni waa bawal yi waxee tamit moom la ñuy euh, noonu lañuy ñuy kon sëriñ bi loolu yi la bëggoon ci. nit muy tabax ko bam melni nit kuñ tabax bam melni nak dama yaakar ne di nga amal njariñ société bi nga bi nga xamne ci ngay dund bu baax a baax baax te lool rek le serigne bëggoon kon li ñi wax fi moy li serigne bi redd ni nit ki koy top ni la wara mel nañuy def ba yegg ci nak moy dañuy jiem dox bis bo bis bo doxé jëm ci la la kay man lool loolu du yow serigne bi le kàttanu serigne bi do ci dara doxal rek jëm ci mom la wax moom lim moom lim bëgg mooy nga dox jëm ci mbir rek la cay des la ko yeggale moom lee doon kon foofu rek lañ yem ci kàddu yi di jéggal bu baax sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Abdou Karim Mbacke waaw ñi ngi ñi ngi sant bu baax Abdoul Khadir ci euh, contribution bi am na solo lool. Euh, di santit mbokk yi nga xam ne ñoo séqoon waxtaan wi wax dëgg yàlla ku ci nekk lañ la joxoon ngir nga wax ci euh, wax nga ca lu kawe suñ jortu xëy na sax taabu bu euh, bariwut bi lool ngir bañ toogaay bu yàgg bi moo waral genn tënk gi ñu doon sàkku ci ñoom waaye bu ñu leen bàyyi woon ku nekk développé dana gën a yaatu bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax sant sëñ Galas sëñ Abdul Xaadir sëñ Fàllu ak Abdul Xaadir Lo Eh, di sering sering bu baakha a baax eh, di ko gëna ñaanal sun borom gën ko katanal gën ko guddal fan wi eh, baye ko xelam ba limu yene liggeel sering bi ci yoon wi ak ci l'islam sun borom mm, may ko gudd fan gum ko mëna a dañ and ko mom wax deug yalla li lu rafet la lu am solo la dajale fi ay mbolo dajale fi ay gone yu gëstu ci walu xam-xam ak ci yoonu murit ñu def waxtaan wu melni lolu loolu bu am am solo la ñing koy rafetlu di ko ñaan suñ borom mi tax mu def ko ak serigne bi tax mu taxawal li ak yenen yu melni, ni ak yenen yimi def ci yoon we ci l'islam ji lepp yalla nako ko borom fay tam yag ko def eh, ñu yag ko and ak mom eh, kon tejtel kaddu gi rek dañ koy jox serigne abdul karim bakke mi wax ci turu serigne abdou samad eh, bu noppé rek bu ko defé serigne bi daal di mëna ñaan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 wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida barke borom Tuubaa mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu wa sallam di yeesal suñu njébbal ak suñu jaayante ci xaadimi rasuli radiallahu anhu ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginaaw nuyoo bi ak ziar bi ñu ngi balu àq ñëpp te di leen balu di ñaan suñu borom nangu ñaan yeeg jaamu yàlla yi ci weru tedd wi ñu nekk te faj aajo yi mboolem julit ginaaw loolu ñuy ñaanal Cheikh el Muntaqa suñu borom dëgëral ko te ko te sàmmal ñu ko ba li mu naa Serigne Touba ci yoonu lislaam wala ci toolub lislaam mu yeggale ko nu kawe njortam kawe yéeneem kawe xalaatam kawe bëgg-bëggam wa ma dalika ala bi aziz naka noonu itam di ñaanal suñu kilifa gu mag gi toog kilifa yi fi jàll yëpp wax nañ ko eh, ñun nag matuñ ci moom seere ndax ak cofeel gu am ci moom yaroo ci keppaaram xam ci moom lu baree bari waaye mbooleem engagement bu ngeen wax ci bëgg lu baax ak dox ci ak mbokk ak jaxase boole ay nit ci lu baax loolu bañ nekkee tuut tànk ci ronam ba léegi loolu lañ xam ci moom wa ma shahid naa illaa bi ma alim naa kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal suñu boroom dëgëral la te yàggal la fi ndax sa yàgg fi njariñul julli de njariñul muride loolu man xam naa ko bu baax a baax mbokk yi doon wax yaakaar naa ngir yàlla rek tax ñuy wax kon yàlla nañu yàlla sàmmal Cheikh Abdou Samad naka noonu itam ñi ngi rafetlu bu baax mbokk yi nga xamne euh ñoo jitu ci kaddu yi eh, tambule ci serigne mi yoron jotaay bi del jaar ci serigne Abdul Khadir, ak Cheikh Mahamadul Fadil mi ak serigne Abdul Khadir. serigne bi dafa ubbi fenêtre bu am solo moy ñun ndaw ni amuñu won interlocuteur fo xam ni dess na fa mëna feñal suñu liggéey ci serigne bi bu ñu amee ay proposition itam sëñ Abdou Samad moo ñu yombalal koo xam ne boo ñëwee day ubbi boppam déglu la mën a wax ak yow ngeen mën a échanger ba nga mën a wax li nga bëgg a wax ngir liggéeyal Serigne Touba loolu ñu bari mayuñ ñu ko woon kon nag Serigne bi ubbi nga loo xam ne yaakaar naa jataay yii sax yi cay cay topp mooy dàq te te xam nañ ñi fi nekk ñëpp liggéeyal Serigne bi rek moo leen ñor euh, jataay bi dañoo wax ne Serigne bi. wa bis bii fu mu yegsee moom sëriñ Abdou Samad da ci woote dajale ay waxtaan dajale ñenn ci ñi àndoon ak sëriñ Touba di fàttaliku sosu yoonu murit mbir nag bu sosoo am na lu ko taxoon a sosu am na itam ay ahdaaf am objectif yi ko taxa sosu ci gàttal rek am na kenn ko ko wax ci mbokk yi li taxoon yoonu murit sosu ben bat kep la yakna Cheikh Mamadou Fadil wax na ne a saada kon saadatu daraini motax Serigne Touba sosion mourid saadatu daraini kon jëmmi dom adama ci bofam lu ko ñor la Serigne bi wax na ko dafa am modelu nit kum bëgg tabax waye mbir bu soso ba nopi am fu mu jaar sosu ci ay jafe-jafe sosu ci ay su'ubataki ak tahaddiyat ay défi ñu défier ko sëriñ bi mu sacrifier boppam li mu sacrifier boppam ñu xañ ko njabootam xañ ko ay taalibeem xañ ko liberté loolu lépp mu di ko def waaye malgré jafe-jafe yooyu malgré li mu doon jànkoonteel lépp teewut mu taalif ay téere yu baree baree baree bari yar ay kàngam yu baree baree bari sos ay dëkk former ay nit loo fo foofu nag fi la mbir mi fi la mujiza bi nekke wala karaama bi ak koo xam ne amoo liberté ak lim bind ak lim réussir lépp loolu lu jar jàngat di jànkonteeg ay tuuma ay wax yu bon ay xata Sénégal ay dëkk ak complex d'infériorité maanaam koo jàkkaar lool jàpp ne yaa ko gën loolu murid yi mucc nañ ci waye itam koo jàkkaarlool japp ne mo la gën ba ngay soofi ci kanam ni itam murid yi mucc nañ ci ñu am fulla lañ te loolu Sëñ touba ko dindi ci ñom kon lolou sëriñ ci fi jaar wootu ko tambale ci sëriñ ba bi mi sos yoon wi ak ni top ci mom li ñu réussir ak fi ñu jaar ba agsi fi ñu fi may joyele samay kaddu moy ndax dañ koy waxtane rek daldi bayyi mu jall wa an anañu ñun ñun anañu ci loolu anañu ci effort yooyu anañu ci juhóor yooyu anañu ci réussite yooyu fan lañ ci toll loolu moo jara waxtaane ah li nga xam ne manis na koo bàyyi xel fi mu toll nii bu ma ko sañee wax euh, ñenn ñu ñaaw ñi mooy dafa mel ne dañoo bàyyandiku bàyyandiku mooy li am ci effort ak liggéey bu ni mu rëyee Euh, ak yaafuus daa mel ne am na ci ñenn ñu mu bëgg a dugg foofu boo ko dee seetlu mooy day mel ne am na lenn ci ñi ñuy tuddee ay kilifa mbir nag boo ko bëggee waxtaan. كرم وثمن doom ji sa doom ji yeesal na diine tax na ñépp a ngi di julli ak sëlmal sa doom ji waaye way ko yombul yombul ay teggin moo di bu yombul ci ku jóg di ko Claro. mbay saar ma ñaaw sëriñ guyaar seex njaase seex ibra saari jaar moo leen saaxal seex mbay saar seex ma ñaaw sëriñ guyaar sëriñ guyaar jaar seex ibra saari jaar moo leen saaxal seex moo duloo dagal seex ma samba soxna soxna

yirijaal moo leen saaxal yirijaal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

There's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 ni ko ñëpp waxee euh, jéego yi sëriñ bi doon dox rek moom nga nit teg sa tànk kon nag Mbàkke yàlla nga gën a àgg rëkk ci sëñ Tuubaa mbarki xaadim rasul ñu ngi lay saara di la ndokkeel ci bis bi bis bi ni nga ko waxee yi ci daje dafa bari kon bis bi tawfeex rekk la yàlla nu yàgg fekk bis bii te itam jataay bi ñu fi def lépp yàlla ñu gërëmal sëñ Tuubaa jërëjëf Mbàkke ci xéewal gi nga nu boole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 بشرى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة مكتوبة على سراب خاتم ملكوتك بلا محو أبدا آمين يا رب العالمين بايعت خير العالمين لوجه رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي مرمتوا الرحمن الرحيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذني الله تبارك وتعالى من الجميع نحن القريب المجيب الصميم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 شكره أروم ودع من تعظما أكرم من باقي القدير الساكرات وطيب المشاكرة عبدا سكورا ساكرا وببقاء عظماء لي قاد فالله العظيم وخاد لخير لم يبني ما صدما هدم ربي ابنا بري ونعم ربنا وخاد لي مالي بنا وصفصف نارا رمى Ulama المرسلين والحمد لله رب العالمين أبي الله